لله توبة من أدناه غفار ما زال للخير يدعوه ويشبوه ولزادة دغبا ووقرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمبوس مبرار قد عاق جسمي أما القلب يطلب من المناقب تزويف وإزرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار غفار لغفر صنوبي وفكك كبلي بمن علي لتركي زور وار بمن يخاطب لي في زور رودته علم القول من بالعرف عمار ظلما ذهب وين ستر بك الدار وحال من دونه سول وعوار لا يمنعنك بغض من زيارته إن المحب لمن يهوى وزوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أقدار wajjahtu wajhi ilayka al-yawma multamisan minka tajaawaza amma aba awzaaru wajjahtu wajhi ilayka al-yawma murtajiyan kawni ladayka kaman hajja wa man zaaru يا ملكي كوني لديك كمن بروي زوار بجاي من حيث ما زاد تقاربه شمس تقاربها في سهو أغمار أو أنه عندهم فيما يرى بشر بر ووالي آبار وأنوار للبدر نور العظيم يسنار به لكن إذا لم يكن للزمس إزار للقلب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تنبت شجار يكون للبير ماء طاب مشربه لكنه من غليج البر أقدار أطل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجار ندى بالماء أمتار ذاك المراد الذي أرجو نجاة به دنيا وورا فليتي حوله الجار وهو الذي عيق جسمي عن زيارتي لكن لذاني له كالقلب زوار له علي لوجه الله دين سنن مستحسن كل عام يوم يختار هو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيلة الشجاع وعذار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالشجع والشعر مما حاز مغزار أو المذاحة ترا بسنا مدحو وليس يدرك بالأكواب طيار كعب وحسان والبوسير قد برغوا وكلهم شعر نور وأزرار فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار المصطفى خير خلق الله منزلة لو وجعنا كل الورى raamal wara nayla fadlil musrina lahu wal fadlu inda rasulillahi qaraaru kiltaa yadayhi la sa'yun tulaasimu baslun wa ba'sun liman laano wa man jaaru lahu min al ilmi ma lam yahwi basharun أو جن أو ملك وصدر مزغار له لدى الله سر لا يطاله بالكد والحلم رهبان وأخبار فالخيز من ذك بجود البر ذو خجل ولا غاب لخوف منه فرار لو من الحلم ما لم يحويه جبل لا خالف في البرايا وهو سبار إن الرسول لسيف يصدى به مهند من سيوف الله بتار الكل من جملة الأخيار مرتبة لكن ما أحمد المختار مختار صلى عليك الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يغوى ويغدر ولا لمن باقتصاد قد أووا زرفا لأنهم للورى سادات خيار وسحب الغر من أخرانهم سبقوا إس بعدهم هاجروا والبعد أنزاروا لهم لدى الله تخصيص بما ظفروا هم النجوم لقوم في الدجا زاروا لهم لدى الله تنويل زوائل لن إذا يلل كل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طر الوقود الذي أغلد كبار وصفهم والحلم دأبا للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيث ما داروا لن يمال خلفاء صديق ما عمر عثمان علي يوم الأبرار لا سيما الخلفاء صديق مع عمر عثمان وعلي نعم الأبرار عليهم الدهر رضوان الإله كما قد تناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم an yasabni yawma anni sanbu wallaaru saadu rabbiya bil muxtaari summa bihim alaa yaroomul xiwaadi dëhra asraaru saadu rabbiya bil muxtaari summa bihim alaa yuxaaribani bi soo i qaraaru saadu rabbiya بالمختار ثم بهم ألا تروم جنابي في قد النار سعدت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سعدت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالقدر قدار سعدت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالقدر قدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تندفي عن فؤاد اليوم أغيار سألت ربي صلاة منه دائمة أني ما خو قوم حاله سار سألت ربي صلاة منه دائمة أني لو ما من في حبه هار سألت ربي صلاة قد تهيرني منه إليه لا نور وأزرار سألت ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا وأخرى مثل من غار أما أبا بكر الصديق سيدنا فللجميع بأن قد فاق إغرار وبان إزرافك المختار وحدهما في ضيق محل في الانذار استخرجوا بتكذيب وبعدهم ماجنا لمكان أرضه ودار بعدوا بمر عظيم حول ما الخديم والكل منهم بسوء في أمار وقابلوا بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو زبار subhaana rabbika rabbil daa mel ni dañoo bëgg a tàmbali dañoo bëggoon a eggal raay bi waaye bu ngeen noppee rek ñu eggale ko ndax sëñ bi daa taamu saa bu ñëwee mu di ko mu di ko jàngaloo ñu taamoon bu ko tàmbalee mu egg waaye bu ngeen noppee rek ñu eggale ko incha allah. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw bu nu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakar Cheikhuna Ahmadul Khadim no ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yal nako fi sunu borom gëna yagal te gëna doli ak wërëm ba nal yi mu nalal l'islam yëpp suñu borom bayiko fi ba mu ko tañu and ko ak mom te am ci ngeerumul Serigne bi. di nuyu borom ëtt bii ñu toog di cheikh Mouhamadul Moustapha moom cheikh Abdoul Khadir Mbacké leen nuyoo boobu ci moom mu jàll ci kilifaam di sëriñ cheikh Ahmadou Mbacké xalifab sëriñ Abdoul Khadir di amaan mbégte di ànd ak yéen ci jataay bi nga xam ne baaxoon nañ di ko ànd moom at mu jot ci weeru koor gi ñuy jégglu nag bu baax ci bokk yi ni ñu ko annoncé woon wax ne danañ ànd ak ñoom ci waxtu wàcce kaamil bi xam ngeen ne sëriñ bi démb la mu kaamil bi ginnaaw bu mu ko tàmbalee ci bi ñu séentoo weer wi ba mu fas yi ca jumaa ba ñëw la tàmbali woon na mu ko daan baaxoo defee at mu jot di jiital boppam naafile gi tàmbalee ko ci baqara ba ni mu agsee minal jinnati wannaasi yàlla na sun borom matal léppam ni mu matale alquran tey jii nag ñu fas yéene seq ak yéen jataay bi di ko def nañu ko daan defee di ko ànd ak sëriñ moor Mbàkke xam sa diine moom sëriñ Jili Gànnaar moom sëñ moor Soxna moom Maam Mor Jaara moom dana ñëw ak ñun ci ni mu ko baaxee def atte yi nga xam ne mooy attey koor lamboo nag ak teggini koor ku ne xam ne ne koor daa am yu ca aju yu bari yàlla mi santaane koor moo ne nii laa bëgg ngeen woore ni mi nga xam ne la santaane julli ne nii laa bëgg ngeen jullee ni sant ñu jaamu ko it ba noppi ne nii laa bëgg ngeen jaamoo ma ni loolu mooy texte leen maa samay jaam digal leen niñ ma war a defee ndax loolu mooy tax ñu am ci sama ngërëm incha allahu rabbi sëñ Mor dana ci ñëw ñun su daaneelee sëriñ bi dana ñëw soññiwaat ñu ci kàddu yu am solo yi nga xam ne daa xoona at mu jot mu ànd ko ak ñun ñu jaajëfal bokk yi nga xam ne ñoo koy teewee yëpp rawatina suñ bokk yi nga xam ne at mu jot ñu ànd ko ak moom tàmbalee ko ci rajo bu mag bi di rajo Lamfal FM ci 97 point 4 fii ci Touba ak 101 point 5 ca Dakar waaye di ko ànd ak rajo ICAP FM at mu ñu ànd ko ak ñoom waaye ak site internet yi nga xam ne ñoo ko baaxoo di ko jël di ko tàmbalee ci Touba Vision ak Assalaamy ak sunu info at mu jot da ngeen koy am en direct ak ñoom kon damay daal di bàyyee kaddu gi sëriñ Mor Mbacke xam sa diine mu ñëw ak ñun ci waxtaan wi su daaneelee rek sëriñ Moustapha moom Cheikh Abdoul Khadir dana ñëw incha allahu rabbi kon ñi ngi jaare bokk yi ne ci biir réew mi yëpp ak bokk yi nekk bitim réew te di ko ànd ak ñun kon sëriñ bi bisimilah.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 mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bi sun borom subhanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci fii nu toll ci koor gi nga xam ne ngi ciy catli di xaaj mujj bi nga ak gore ci sawara ñetti xaji ci digge yep yalla ngi sun suñu borom def ñu jëli ko ci mu yërmande jeeg njëggal geek texe ak mu ci sawara ñu ñaan si si si Ahmadu Abdul Xaadir bi nga xam ne itam moom lañu ko defee fi ci kanam seigne Moustapha sun borom bayil ndoko fi mu yag fi lol te wir lol ba lim yene liggéey sami geek seigne touba lepp mu agale ko lepp ci bakki seigne abdou khadir ñaanu ko njaboot seigne touba gep ak jabar si Abdou khadir gep ganal ni ko seigne Fallou galassi la waxe rek kon tam bi ñu mai al waxtaanee ahkamun wa adab. muy kor ay atela la ak i teggin teggin nak mbir mu nek l'islam lu lu nek ay teggin da ca am solo wax mooy tax jef je yalla gërem ko mooy tax mu nang ko itam xam nañ ne koor jaamu yàlla yar jaamu yar ak yàlla ak ruux maanaam jaamu yaram la ak ruux jaamu la gokk yaram moo koy def ak ruux jaam bi de ci sàkko jagil ne borom subhanahu wa taala mu nekk jaamu goo xam ne ko faratal ci jaam ñëpp ngir sellal seeni bakkan ak jubbanti seeni jikko ak laabal seeni xol ngir ñu nek ay julit yu sellal yu bax way yu ragal yalla deg deg ak ragalam motax tax mu ne yéen ñi gëm yalla dama faratal ci yéen ko ni mako faratal ci ñi leen jiit ñi leen jiitoon lépp laallakum tattaqun ngir ngeen ragal yalla kon demel ni résultat koor ma kon moy ragal yalla lañ cey jëlee meññat ma moy ragal yalla mu am nak ay mbir yu bari yoo xam ne aji woor ja da ko war a bàyyi xel ngir sàkkoo ca ngërëmal yàlla subhaanahu wa taala nga xam ne moo ko tax di jëf ñu cee tudd yii ba njëkk mooy topp yàlla mooy dayob aji woor ji ndax war dañ ko def ngir topp yàlla jaam bi dafay day bi day woor kon ngir topp yàlla topp ay ndigalam ngir dëggal li mu wax ne mooy ay ji ma waxoon léegi dafa farataal ci ñun koor na ko na farataal ñi ko ñu jiitu woon lépp ngir nu ragal yàlla moo tax mu farataal kon war na bàyyi xel loola saa su nekk saa war mu bàyyi xel loola kan moom jullit da cee yaakaar ca loola dafa yaakaar ci yàlla mu jéggal ko la jiitu woon lépp ci ay bàkkaaram waaye de mébét itam mu goreel ko ci sawara te xam ngeen saa su newoon na fukki fan yu mujj yi nekk nii ak goreel la ci sawara waaye itam ak texit tàbbi aljanna ko yonent bi ne ko man saama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi rawahu nasai képp ko woor ramadan ngir gëm yàlla fàggu teeba ñu jéggal ko li ci toon lépp ci ay bakkaaram ñëw ti ci sun boom wax ne kullu amali ibni aadama lahu illa sawm fa innahu lii wa ana bi buxaari yu ak muslim ko ci nag solo na ko mu ne jaam bi jëf jum jëf moo ko moom moom jaam bi ba mu kon man yàlla maako moom te maa ko fay bopp dëgg-dëgg jëf yëpp yàlla leen moom kon su ca seetee jenn ji moom maa ko moom dafay tegtal rek màggaayu màggaayu loolu ak dara jum am ak eh, yit ak ko yittewoo ak fu ko teg ba ci jullit war a bàyyi xel ki aj woor moo xam ne sellal ixlaas ci jikkoy aji war la bokk ixlaas day loo xam ne mënut a ñàkk ci jëfi jullit ndax sell gaay tax sun boom nangu ko inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba yàlla ko tey la te nangu lu dul lu tey lu tey mooy lu sell kon aji war faaw mu jikko wa jikkoy sellal te sellal mooy li ngay jëf ne yàlla dong tax bu ca rax leneen su fekkee ixlaas amu ci rek daanaka mook mook mook bàyyi bañoon war ñooyam ngir dëggal li yonent bi sallallahu wa sallam wax ne rubba qaa'imin xadduhu min qiyaamihi as-sahar wa rubba saa'imin xadduhu min as-siyaam al-juu' wal atash rawahu ahmad baraana koy taxaw fanaan ni nafila taxawaay ba du ca jële lu dul ab coono dong baraana aji woor it du jële ca koor lu may xiif ak mar dong yàlla nañ ca musal loolu ñàkk a mooy la ko yoral ndax bu seetlu rek mok baye yam daanaka moo tax suñu bon ko sun bon ko nangu mo tax sin Tuubaa wax ne thumma siyam fantabih lam yanhasir fi adam adamil akli faqat la taxtarir idh rubba sa'im ma al jamaa laysa lahu fihi siwal majaa neena na nga xamne ne koor yemul ci ñak lek dong wala ñak nan dong ci koor la bok way du mom dongay koor mana barana baraana kuy wor ànd ak mboloma ta kooram lu ca du ca jëlu lu dul xiif kon sellal muy ixlaas ponkub cosaan la ci jëfi aji woor ji ndax ci bu ci amul rek deesu ko mën a nangu ñetteel bi ci li aji woor yi war a bàyyi xel mooy as-sabr mooy muñ ma xam ne ci jikkooy aji woor la bokk koor dafay tàmmal bakkanu doomu aadama ak muñ muñ ab xiif muñ aw mar waye tey ay bànneexam man le man ñongal bakkan bi eh, ba man ko neewal doole ba not ko ba lam ci fam ko mu koy fa ko bëgg jallu man ko jallo fofu ndax yaronte bi alayhi sam waxon na ne sum chehra sabr, wa thalathata ayamin kulli shahr yudhib na waxara sodro na weeru muñ wi noonu la ko tuddee foofu ne du weeru koor waaye weeru muñ wi ak ñetti fan ci weer wu nekk dana dindi ñëggi-ñëggi xol maanaam xol bu lëndëm xol bu dëgër xol bu euh, euh, dëgër yëpp maanaam dafay dafay dafay sellal xol da koy laabal da ci day dindi lu ci ëpp lu ci tilim tilim ba xol bi leeru yàlla mën caatab bi albiraas ak tabraani yi ko ci solo na xadis boobu muñ nak moy ngannaayal aji wor la ba wan da ci mëne déggé la euh la borom subhanahu wa taala waxone inna ma yow fa ajrun bi hisab ñi muñ daan leen matalé seen yool ta du and ak ben genn réglé ben hisab ba ko ci li aji wor ba wara bay xel moy def ay sacrifice ay sacrifice ci jikko aji wor la bokk aji war faaw fay sacrifier aw ñamam ak nanam ak bànneexi bakanam waye ni ko di sacrifier alalam ti lu misal di di di di joxe ngir yalla lol lol lo lo ko representer moy moy sakatu fitri gi nga xamne dañ ko diglé ci mujj koor ak sarax yi nga xamne yoy yooyu coobare yo nit ki mo coobare woo diko def ngir jël ci jël ci yool mi la aswa jalla moo tax root na ci mbir moomu ay ahadis yu bare bare bari bokk na ca li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne alsiyaamu walquranu yashfaan lil abdi yowma alqiyama yaqulu siyaamu ay rabbi manatuhu taama wa shahwata fa shafini fii wa yaqulu alquran ay rabbi manatuhu nawma bil layli fa shafini fii qaal fa yashfaan nee na alxuraan ak koor dañuy ràmm ab jàmm ëllëg bis penc neen koor gi day wax na yow sun borom kii de maako ko teewoon a lekk bëccëg toog tee ko kon rekk waay tin ma ci moom alxuraan ne yow sun borom kii de maa ko teewoon a guddi ndax taxaw gum daa taxaw di ma naafila kon rekk tin ma ci moom sun borom daal leen tiin ñu bokk la ramu ñoom ñaar al imaam ahmad ak tabarani ñoo solo xadis boobu kon am na ci koor kon ay sacrifice ci ay mbir yoo xam yoo xam ne bakkan da ko bëgg lépp la ngir ngir sàkko ca jegan li yàlla subhanahu wa taala ak sàkku ci ngërëmam sacrifice sa bakkan nag ak sa alal ak sa lekk sa naan ak say bànneex kon dafa bokk ci jikkoy aji woor ji waaye bokk it ci jikko yi nag ay kuy jihaad ci yoonu yàlla ndax mooy cosaanul victoire ci ngay mën a gañee sa bànneexi bakkan ci la ñuy mën a gañee it noonu lislaam yi bu dee kay kay kay woor ci lay mën a gañee bànneexi bakkanam su dee kay jihaad ci lay mën a gañee noonu bi yàlla ba ku munta gañe bakkanam nag soo xeexaw na ko noonu dañ ko day daanu maanaam képp ko xam sa bakkan na la koo xeexale da lay daan kon ku nutul bakkanam mu tax noonam ñëw na kon ci wàccuwaayu Ramadan ak ak magayam cheikh ramadan dafa am manzila manzila asim moy waccu bu bu magga magga. mag fa yalla subhanahu wa taala kan dafay jaadu ci julit bi mu xam ko ngir xam màggu darajam mata tax Sëñ da ko waajal ci buy ñew mom yar koor da koy waajal di teru diko di tatagal ñëpp dégg nañ gu gattu mu ci ci penketel weer Ramadan weeru koor di ko ko di ko ko waajale ak di ko dalal ak di ko yaatal ak di ko tatagal yaa xayra dayfin ata bil wal madadi ahlan wa sahlan wa bila adadi mu nekk xasida gu gàtt waaye Sëñ ca xasida googee weer wi di weer Ramadan xamle na ci itam ay njariñam xamle na ca it nan la ci ab jullit war nan la koy mana, nan la koy wara jappé deug deug ngir mën nitu ci yi nga xamne mom la lambo, mu teunk ci njal gi lam lam ca nam it mam seigne touba ci bopam ndax feñal na ci ne may gan gi gën ci mboolem xéti gan yépp ya khayra dayfin yo aje yo mi xane ya gën mboolem gan yëpp dafay tektal ni kon borom daara jooju mag la moom koor feeñal na ca it ci na dafay indaale sëriñam mbégte moom ko dafay indaale sëriñam mbégte ak ndollan jëmi ko ci mboolem jullit ñi koy waajal ñëpp ak di ko woor tax mu dalal ko yaatal ko tatagal ko feeñal ak dogoom ca nam ca nam ma taxawee moom Sëriñ Tuubaa wax ca la ca topp ne nga xam da cay feeñal weer wi wane ne moom kat gan gu tedd gu dikkal at mu nekk nek gan gu yayo tiranga, waaye duñ ko terle ay miswi duñ ko terle ay ñam yu neex ya lañ ko terle may top ya, top yalla ci wax ak jëf ak ci pas pass ta may deug deug istiqama lolé wax ne la zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi xiira taati wa sadidi dañ yow korn wala mosoo dañ di nekk gan gu tedd gu ñuy seet seet at mu nekk waaye gan gu yeyoo teraanga ga gan gu yeyoo ay bern ga ci berndee topp yàlla ak njub kon topp yàlla ak njub moom moom la ñu berndeele koor Sëñ Tuubaa wane it feeñal ne gan la gu màgg fa yàlla tax na bi gaa ñu baax ñi xamee waroom xam-xam yi xam ñu jub ñëpp xam màggaay googu fa yàlla ñun ñëpp dañoo maase màggal ko ni ko yàlla màggale muazzaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilmi war rashadi màgg ko gi mu màgg nag moom koor mayees na ko xame ci juróom yëf màggaayu koor mayees na ko xame ci juróom yëf ba ci njëkk mooy li sunu wax ne chehru ramadan allasi unsila fihi alquran hudal linnaas wa bayyinaat minal hudaa wéru koor ci lañu wàcce alquran mu nekk ak njub ci nit ñi nekk firnde itam ji ni koy mën a tegtaloo ci ak njub waaye nekk luy teqale diggante dëgg ak fen moom alquran alxuraan mooy jant bi nga xam ne ci la ab julit di niitoo ca ak leeram ba mën a xam li koy jariñ àdduna ak alaxira mu topp ko xam li koy lor àdduna ak alaxira mu moytu ko loolu nekk xéewal gu màgg a màgg goo xam ne sunu borom da ko da méngale weer wu tedd wii di weeru koor ba ko ñaare ci lu mën a xam màggaayu koor mooy ci la guddi laylatul xadr nekk mu nekk guddi goo xam ne guddi la gu màgg daraja nekk guddi gokk ko ca jaamu yàlla te sellal jaamu ga lam cay jëlee moo ëpp yoolub junni weer ni ko sunu borom wax ci alxuraan junni weer wax na ko jaam yàlla jaam yàlla jaam ko yàlla nangu laylatul xadr xayrum min alfi shahr te junni weer nag mooy juróom juróom-ñetti fukki ak ñett ak ñeenti weer juróom-ñetti fukki at ak ñett ak ñeenti weer nga xam naa ci mujj waxtaan dañ ci gën a xuus ci jëmi laylatul xadr ci boppam mu guddi goo xam ne wuutu na kon guddi goo xam ne dafay wuutu lu ëpp junni dafa tegtal kon guddi goo kon guddee gu màgg gu tedd waaye weer wam nekkit weer la wu màgg weer wu tedd ndax jàggoo na loo xam ne wenn weer jagoogu ko wudul moom Sëñ Tuubaa teg ca ne yaa chahra rabbin karimin fii ka jaadalana bi laylatil xadri zaatil fadli war raxadi yow weeru koor wu tedd wii ci sa la nu sun borom baaxe guddi gu tedd gii de laylatul xadar nga di ne guddi la wax na guddi la gu am ngeendel waye gu bari ay xewal ñettal bi ci luñu mëna xamé magay màggaay koor wenn wi sun borom faratal ci ab julit mu wor ko at mu nek ak donte weer yi ca des yëpp yu mag lañu yi mag yu tedd yu bari la muharram dul xijja sul ak rajab nga xam ñoy li al al ashhurul hurum wer yu tedd yu mag yo xamne la jitu l'islam dañ ko dan magal bi l'islam dikay tam gëna a fet di magal ko gi maanaam saa bu ñu naan ba wer yu dug dañ da di wér nga nay nga xam ne nañu tuddee yu ñu warmal yi kon wer lañu tedd yu tedd jite si nga xam yoy bu ci nek sop nañ mang ko wor lepp mba wor la jëpp waaye and lañu mag mag nak koor dong nak ramadan dong la ci sun boom tan ta mom sa bokku ci al ashur hurum digle ñu war ko at mu nekk mel sunu borom da ko yillaale nag wàcce gi mu ci wàcce alxuraan ndax la motle aay ba faman shahida minkumu shahra falyasumhu képp ku gis weer wi ci yéen rek na ko woor kon nekk gi mu nekk wenn weer wu dee si woor ci at mi ànd ak màggaay yore ca des te ñoom amuñu loola dafa tegtal kon màggaayam moom shahru ramadan ba ko ñeentee ci li ñu mën a xamee màggaayu Euh, koor mooy dafay dafa am màgg ak màgg fa yàlla subhanahu wa la euh, am itam war ma ju rëy ba tax ñuy fi fil ful jëfi képp ku ci jëf ba ci mooy yàlla koor loo ci jëf ñu ful ko soo jëfee lu baax ñu ful ko soo jëfee bàkkaar ñu ful ko maanaam jëm weer bi moo barkeel ba loo ko indil mu fulal la weer bi daa barkeel ba loo ko indil rek mu fulal la soo ko indilee lu baax mu fulal la soo ko indilee lu bari mu fulal la doy na ak tegtal rek ci war maam ne képp koo xam ne rama war ko war na la nga dog ci ab bis ta tayu ko tàngaante warulu ko la koy fay mooy ñaari weer yu ma sëkk yoo xam ne danga koy toftale boo doogee te mutu da ngay tàmbaliwaat kon weer woo xam ne benn bisam yeneen ñaari weer koy wutu kon dafay tegtal màgg ak yoo weer dafa te day itam war ma ju lambo ta te fu yeen sa saa wax ne ki dog bis ci wer ko ta tay ko ta mun ngànt so waroon les si ak dundam lepp taxun mana fay bo bis bo ne so waroon jamono lepp mun ta fay bis bo kon ñaar yar yiñ lay tek ngi kafaara aw yoon la ca rek waye neeku sax lo xamne man na fay bis wi nga faat ta ngant warulu ko kon dafa war nak ci jul bi kon mu ak war ma joju ci barab bu mën nek ak donte am na ngantal korit ba wóor na ko sutural ngir warmaali ko weer wi suñ mi ngi indi ci benn dénkaan di netli, yahur bu tabi aljanna yahur bu tabi aljanna lako tabal aljanna ma dafa domam domam da don lek ci beccu weeru kor ci karam julini bam ko yegge mu duma ko ci lola nek lu tax julli ñi war ngay lek sen karam nga lol lool loolu moom moom moom cel ko yalla yërëm tabal ko ko aljanna tabal ko aljanna dafa tetel kon war ma ji kon am na yiw rëy bu lambo làmboo suñ boon nag ñu xam ne kon dafa ba am yu màggal am na ci jamono yu mu màggal lu mel ne jamonoy koor am barab yu mu màggal am jëm yu màggal dafa tànn dafa bind jamono yi def leen ñu gën jamono yi ca des tànn jëmm yi def leen ñu doon jëmm yu gën ca des tànn barab yi def leen ñu barab yu gën yi ci barab yi ca des kon ku weeru koor tab bi kon melen tab bi na kon jamono ju tedd ju ñu fi lay jëf su la fekkee nag ki barab bu yàlla jagleel war may boppam barab ba ndax barab bu teddit loo fa jëf dañ koy ful Tuubaa gi loo fa jëf dañ koy ful Màkka loo fa jëf bu dee lu baaxal ba nañ koy ful Madina noonu Bayti Maqdis noonu Tuubaa gi noonu loo fa jëf dañ koy ful kon su weer koo tàbbee de di jamono ju ñuy fulay jëf nga nekk Tuubaa teg ci ba di barab bu ñuy fulay jëf kon ñaari war ma daje ci sa kaw kon ku ne war a fegu ku ne war a sàmm waaye yaa ca war nag yaa yaa ca raw soo jëfee dañ koy ful ngir weer wi nga ko defee dellu ko fulaat ngir barab bi nga ko defee te bu dee bàkkaar noonu lay deme kon farlu ci góorgóorlu ci ci lu baax te moytu bàkkaar nag kon ki am ngant ni ma ko waxee léegi kon war naa sàmmante war ma jooju bañ ko xotti ci kanam mbooloo ba ko juróomeel ci yiñ mëna xamé magay koor may dafa wër bu bari barke bu bari yermandé bu bari njëggal ba tax sa su tàbbee mom yar koor ñu tejj mbolé ti sawara yépp tejj mbolé bunte aljann yépp afal jéng seytaan yi ngir nit jambi bi jot ci boppam ba mëna jublu ba mangé yërmande ak xéewal yoyu na ci weeru kor ni ko Sëriñ Tuubaa waxe ca bayit wa wa safidan kulla shaytaanin bima maahu wa mudxifan li dawil ihsan bis safadi nan dañ ci jéng shaytané yi ak ñama andal ñepp waaye da ci may ki ta koy rafetal ay ay xéewal yu bare bare bare bare ak i may wax ca mucc xasida ga ne wane ca taxawaay bi muy taxaw moom ci bu weer wi tàbbi te dafay jaadu loolu lépp ñu ñëpp ñu jéem ko ca loola jànge ko ci moom it sunu kem kàttan inni uhibbuka hubbat daati ta talabim min maliki fika isaadam bila awdi dama la bëgg lool yow sa weer ko te sa jëm rek laa bëgg maa ngi sàkk ci sama borom mu may ma ci yow ak texe ak njub mu nuy jàngal ci loolu ne ab jullit saa bi tàbbi ci weer ko dafa war a am pas-pasub góor-góorlu fexe ba fi génn ci koor ga génnaale ci texe génnaale ci njub loolu lañu ci bëgg a jàngal sooy dugg ci weer koor na nga am pas-pas su koor gi jeex nga jël nga jële ci texe jële ci ak njub ak texe nag mooy nga laq yermane yalla ak njëggalam ak mucc ci sawara te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne awwaluhu rahma wa wasatuhu maghfira wa akhiruhu itqu min an nar weeru koor fukki fanam yu njëkk yermane yalla la fukki fan yi ci digg bi njëggalu yalla la fukki fan yu di yi ñu ak gore la ci sawara kon ci wer ko tabbi mu sàmmanteeg war ma ji defee ko nam ko waree mën na caa jële kon texe goog yi nga xam ne moom de Sëriñ Tuubaa di di sàkku ci xasida gi di ko ñaan yàlla te am na ko waaye ñun lay woon aw yoon bu dee ak njub nag li ëpp ci li tee nit ki am ak njub lépp dafay dellu ci bakkanam inna nafsa la am maaratum bisu bakkan moom lu ñaaw rek lay digal boroom te Sëriñ Tuubaa newoon na bakkan kat amul benn jéng boko mané jengé ba not ko lu wessu xifal ko rek sa boo xifalé sa bakkan nak ci koor man nga dem ba lab ko war nga xamné ne top ndigal dalay yomb légui maytu ter yomb la so ci saxé nak weeru weeru lemmu day da not bakkanam ci top ndigal ak bàyyi tere dafa wér yu maté rek mu daal laq ne ragal yalla googu yi nga xam ne mooy résultat bi wara a ko ci kor ndax laa la gum te taxoon jëm motle ay ja kon dafay jaadu kon mu dogu ci buy tàbbi am yéene suy génn ci koor gi génnaale ak texe waaye génnaale ak njub lay yombalool nag mooy jaam dafay jiital tuub ci léppam ngir royu ko Sëriñ Tuubaa moom day nee na moom Sëriñ Tuubaa nee na ca rajab ca lay tàmbalee waajal koor neen so rajab dikkee ma tuub tuub gu sel ngir wajale ko kor shaban aksi ma delu tuubaat ngir wajale ko kor aksi ma tuuba dugg ko ci biiram daa tawbatin fika aydan madiyan abadan bi dikri wa shukru khalil lil damay tuub ci sa bir yo we la la weesu lépp ko tuddi yalla jang alquran ak di ak ak di sant di tuddi yalla ak sante ak jang alquran bu ko jambi tam genn lem ci mbollem lo xam ne ko tere la ak mbollem bakkar yépp dogu ci jëf lañ ko digal comme nañ ko ko digale mata man caa man caa jële lolo lan kon nak ñew ci atay lan moy kor. kor suñ ko bëggon tënk ci tënk bu gatt da nga xam ne mooy bàyyi mboolem ak bànneexi pey li daal ci fenk fajar ba soog jant te yéene ci ak jaamu yàlla loolu rek mooy koor ci tënk may bàyyi mboolem bànneexi biir ak mboolem bànneexi pëy li ko daal ci fenk fajar ba ci soog jant te yéene ci ak jaamu yàlla ana kan la war kim war mooy mépp mu kalaf ndax doon mu kalaf rek doy na de da cee teg doon ko amum xel doon ko jot ci wooteb lislaam lu may dafa am ngànt ñu dégg ci lool ne kon gannaaw nee nañ nee nañ mu kallaf kon nga dégg ci ne kon warut gone gone ko baali xagut koor wëragu ko teew soo waree nag koor ga dana wér gannaaw nee nañ mu amum xel kon dégg nañ ci kon warut ab dof képp ko teqali ko kom xelam tala ko teqale ko xelam ko bapam kor woru ko te joy jamono te Tago waré kor go du wér tago tàggoo sa xel go do teg sa bopp no da nga nan sangara ba mandi tago nga sam xel fo bo waré kor ga du wér teggu la wartifu koor te bàkkaar bu rëy nga ci ke jotti ci moy dunna ba faatu yegul ne am sun sunu yonne ko tuddu sayyidna Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ngeen dégg ko fenn gisu ko fenn koko dara waru ko ndax sunu borom moo ne wa maa kunna mu'adhibiina hattaa nab'atha rasuula bala maa mbugal kenn day fekk sama ndaw ñëw ci moom ba xamal ko li mu bëgg li mu bañ gannaaw dund na ba fa jot ci waatib lislaam nag kon kooko dara wër ko sunu borom neen du ma ko mbugal waaye warul nag jigéen ji gis baax jamono ba nga koy gis war sax day xaram ci moom wala muy gësin muy darite am doom li fekk teqiwut teqaliwut a sobi sose du woor te bu wooree koor gu day xaraam sax ci moom waaye nag dañ koy fay gannaaw buñ laabee yéen ci abi saidul xudri yi radiallahu anhu wax ne xaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam alaysa isa xaadatil maratu lam tusalli walam tasu walam tasum mutafa ali xanaa du ne jigéen su wooree du julli te du woor loolu jeneen wax waxoon tax mu di ko waaye loolu mooy mooy mooy mooy li ñu ci soxlaal ci soxal ci xaddis bi loolu lañ ca déggee mooy kon jigéen kon bu gisee baax waxtu mu koy gis du woor du julli jullee du ko fay waaye koor yi da koy fay ndax julli xam nga bis bu set la te koor nag moom at ba at la moo tax da koy fay ana lan mooy nganti koor nag nganti yana comme gaar <coughs> koor wàcc na la ca joo jamono ba ci njëkk mooy wéradi wéradi gu metti goo xam ne soo doo ko mën a boolee koor mbaa soo ko boolee fitna la lay jural ju méttee méttee métti kooku daganal nañ ci moom mu dog eh, ca saat su fekkente ne ab docteur bu doon ab julit te xam-xam xam liggéey moo ko moo ko xamal ne ko woor kat baaxut ci wala day néewal doole sama ci bopp moo xamal bopp na mënta wor wala dafay dolli wér dem wala da ko teexe wér da ko da koy a yéexe wér wala amut kàttan nga suba am na sañ-sañu bàyyi kooram ba saa su wéree mu fay ko ndax li borom ne faman kaan minkum mariidan aw ala safarin fa iddatun ya min ayamin ukhar kep ko kan xamne dafa wéré di ci yeen wala mu ne ci ab tukki na jappal ne da kooram goge ba ci yenen fan ba ko ñaarel moy tukki Ki tukki tukki bu gudd bo xamne matna masafatul khasri moy tukki biñu sañ julli ta moy dem bi rek na mat 72 km ko daganal na ci mom mu koram euh comme nim dagana ci mom wañu julem wala sax sunna la ci mom ak donte so wooree koor ga du met du ko sonalit te war amna seen sañu dok ku ne xamna tukki méttee tut legi so jëm Dakar bo jaar ci ilatu Touba bi waxtu man mën naa mën ag ñaari waxtu su fekke auto bu la nga tal sa gilim bolé ci do yek dara waaye ah, and ak loolu lepp na teewut sañ nga sañ sañ nga dok sa euh ndax la taxone ñu faratal koy may koy moy dafa mel ñaar e du ñak ab la ci gëna bari makna wax ba neew na wala bari na mi nga ju ci situation ba si jëmi tukki ba ngay tukki rek su fekke tukki bi na du ko lor nak bo waré mo gën sañ na dog waaye gën ndax la mu wax ci aay ba wa anta sumu khairul lakum ba waxee ngante mën a doo xam ne waaye waaye su ngeen waroon nag moo gën ak xadis ba son sona Aysa radiyallahu anha waxoon ne inna Hamzata bni Amr al Aslami, قال li صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصوم فقال إن شئت fa وإن شئت فأفطر Nana na ku ñuy wax amr ibn eh, hamsat ibn amr al asmi dafa nekkon ku bari lu mi wor bis mu laajoon saas nekkon ndax sumay tukki damay wor wal damay dog mu ne ko soo nga woor soo neexee nga dog ak hadith sohna aisha waaw waaw kon kon kon kon kon lamuy tek rek moy kon ki tukki kon donte tukki metti wut sañ na dog waye so waré nak mo gën ci mom ba ko ñetteel <clears throat> ci ngàntikoor moy ëmb su fekke dafa tollu digenti tam jàpp ne su wooree kat mën naa loru moom ci boppam wala lam àndal loru dagan dagan na ci moom mu dog waaye su loola weesoo nag mu fay ba ko ñeente mooy nàmpal jigéen ji nàmpal te bu wooree maanaam su dogee du am soow te gone gam yor mën a gut a lekk amul keneen ku ko nàmpalal sañ naa dog kooram bañ a saa su demee ba doomum dëgër mu fay waaye moom suy fay da koy bari joxe mudd soo ñi ma njëkk a tudd moom dañuy fay rek waaye ki dog ngir nàmpal moom suy fay day boole fay ak joxe mudd mooy su fekkee dafa ragal koor ga ci jëmmam wala ci doomam sañ naa dog ni xadis bi Anas ibn Malik al Kaabi yi wax ne inna nabi sallallahu Alaihi Wasallam Khal inna allah taala wadaa anil shatr as Salati wa anil musafiri wal hamili wal murdin assawm neen yoon saa dafa wax ne tagil nañ ki ki ki tukki khajub jullem muy julli farata yi Dewan Nyaraka rakay day wañ day wañ ñaar ya, mu dess ñaar waye teggil nak ki tukki ak ki ëmb ak ki Nampal koor mu teggi leen kor ahmad ak tirmisi ñoo ko solo ba ko juróomeel ci nganti koor yi mooy kibaru sin mooy mag mi àgg ci mage am màggat moo xam góor lu moo xam jigéen dem na ba yaram attinatu koor ngir ak màggataayam daggan na ci moom mu dog nga xam ne léegi koor da koy wàcc waaye day am leen lu ko wutale mooy jo day lele day joxe mudd mooy bis set na natti kilo ceeb wala kilo dugub jox ko miskin su fekkee amu ko nag lu mu joxe da koy wàcc kon kooku da koy wàcc mudd mu wàcc ko Abdullah ibn Abbas waxoon na ne ruqisa li shaykhil kabiri an yaftura wa yatama an kulli miskinan wala xadaa aley ke àgg ci mage na dog tay jox bisu set am miskin ta fay du ko war bu de la ci ci ngant ju ñu naa ci ganam moy ki jiss bax ak ki jiss dereti dereti wasin ko lu ñu ma doon ku ci ko ci nak day dog ba kero muy ak lola su de ki yor baax korgi baax ba doge ta koor gi jeex na koor gi bu koor gi jale mu fay kam dereti am domit euh may su de ba deretam jeex wala da jeggi dir ba jeex ma ki ba ki borom baax ñoo bokk loola fi mu war a su fekkee dafa àgg nag te dogut du te day war ndax day jàpp ne léegi dootu ngant dootu ngant waaye léegi léegi feebar la su dee kër baax su na ba romb juróom fukki fukki fan juróom mooy ngeen jaa baax su ko xam ne fukkeel ak juróom benn daa war a wor daa war a sangu te julli te wor su dee déedéet am doom ñaari weer mooy juróom benn fukki fan mooy mooy ab dayoom su ko rombee rek la ca toppat na na wor te julli te xam ne feebar la kon nag am nay farata waaye faratay yi ñaari farata rek la te mooy ak bàyyi lépp li dokkoor bisu mu ma sëkk li ko dale ci fenkook fajar eh, ba ci soog jant na su ma wax ne lekk leen naan leen ba keru wëñ gu weex gi di ràññ ko ci wëñ gu ñuul gi ak alxaytul abyad la ak alxaytul aswad ñu bari jàpp ne nag ñoo xam ne bu njëkk dana jàpp ne ak buum la nga xam ne dañu wëñ gu ñuul weex teg ba ràññee leen waaye jublu ci wëñ wëñ liñ jublu mooy buñ weex mi ngi jublu leer fajar gi ak lëna mu guddi xam nga li ñu tuddee li ñu tuddee fenkuk fajar tuloo tuloo ul fajri mooy dafa am rëdd boo xam ne day tàmbalee ci ndeyjoor moy boy xal penk fam yam yem ci gis xam nga boy xal demee asman dafa seppelu fam seppelu nak day mel day am rëdd ne tefet wu wex tal tàmbalee fe ba ba daanu ci koñ bee loolu xaruk fajar soo gis wex moy fajar lol wex moy tas nak di tas ba day rek mu leer na ñu ne ñu ne ba setna waaw jant bu fa jant bi génn bu ko den lol nak so sa ba de ba ragne nak leeruk fajar gi ci lëndëm guddi gi rek kon ba nañ bay bay lek ak nan loolu jubli kon ci wëñ gu ñuul ak wëñ gu weex mu ne kon na ngeen lekk boobu ba boobee su ma at yi mu siyaama illa li ngeen daan ngeen woor nag ba kero guddi gi tàmbali muy muy jant so sartuñ ci koor nag yéene ji lëkkaloo ak jëf ji bu dee yeneen jëf yi bu dee bu dee njàpp yaa ngi yéene ci fi ngay sëlmoo bu dee julli yaa ngi yéene fi ngay yëkkate say loxo bay bay kabar kabaru xarmal bu dee cangaay yaa ngi yéene fi ngay raxasi sa sa sa sa kanam kon da ngay xool ne jëf yëpp yéen a jéeg yéen ñi dañ ne ci biir jëf ci mbaa mu lëkkaloog moom waaye koor nag moom sàttuñ ji ñu sosloo mooy yéen a ji mën naa jiitu koor gi lu yàgg mooy bis bi bi ñu séntu weer wi suñu séntu ba ne weer waa nga ne mën ngaa fasi ba xam koo tàmbali koor fajal lay tàmbali waaye su ne yow yéen jën yéen mooy yéeni weer yëpp fas ko yéene woor jën yooyu mën na laa doy li fekk koor ba kere koor gi jeex fanweer fan yi sopp nañ nag ci bu dee ci malikiye di ko yaasa bi bu set waaye su ko defee teewul koor ga wér na lu may da dog na su fekkee da dem ba am ngant nag dog mooy tàmbalaat faaw nga yeesalaat si yéen waaye li fekk dog amul nag yéen yi nga yéenoon ci guddi ba war feeñ rek yéen jël ba tey mooy continuer ni ko noonu xëdd it dafay wutu yéene xëdd ki xëdd it doy na ko walif yéene ndax man maanaa taxaw taxawaayam moom xëdd ndax ki ndax yéene jëfi xol la te xëdd dafay tegtal ne kii di xëdd ga daa nar a war dafa doog ci war moo tax ku yéene watoon bu xëddee rek xëdd ba teg doy na ko walif yéene bu dee ci malika dañu sat nak yéeni ci faaw day jitu fajar ci da nga xey rek bam naaj leku gona na dara nga ne ah far wor kor gogu du wer kon faaw yene ja day jitu fajar mo xam nak xam nak kor farata la moo xam koor nafila la ñu tektalo ci le ahmad solo ak ibnu Habban jële ci sona afsa ñu nu sa neewoon na ku yenem li jiit fajar fala siyaama lahu man suwarit du wer maliki nak dañuy dañuy waral mom, yes, yene ji bisu set yes da fay war yes ko sa bo doge nak ci koor sa ba me ngant mo xam da nga tukki won dog wala da nga di dog wala da nga gis bax dog booy tàmbale war faaw nga yesal si yene li dog amul nak yene ji jek ji moy continuer ba koor gi jeex bi bàyyi mboolem luy yàqu koor tegtala mooy wakkuloo wasra ba jooju mu waxoon aay jooju lekk leen naan leen ba kero leeru fajar gi di di di di fees ci lëndëm guddi gi noonu la amit ay sunna koor am nay sunna waaye ñetti sunna rek la moom it bariwut ba njëkk mooy xëdd xëdd sunna la am nañ ñu ko sàggane lool di ko woyofal nga dégg ko naa man ni du xëdd di ko ndamoo waa na xam ne ma ngeen ndamoo doyadal sunna te xëdd barke ngi ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka dee leen xëdd na xëdd barke ngi ci sopp nañ nag yeexe ko ba ci mujj guddi gi saxaaba yi dañ ko daan yeexe ba nga xam ne li dox seen diggante ak fenkook fajar jàng juróom fukki laay moo fi xaj ñu do ñu door xëdd dina man ko ko natt léegi ci juroom minute nga fi ngay baye ak fi fajar du jotee juroom fukki minute juroom minute lay doon Buxaari yi ak Muslim ko ci solo nako bako ba may ta <coughs> mooy fitr may di gaaw a dog bu leren jant solo ndax li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne laa yasaalu nas bi khairin ma ajjalul fitr nit ñi duñ dañ dina ci aw yiw li fekk ñi nga teel a dokk rawaaxul buxaari yi wa muslim ci beneen riwaaya wax ne boo xam ne buxaari ak muslim solowuñu ko mu ne laa laa tasaalu ummati bi xayrin ma ajjalul fitra wa aqaru suxuur sama xeet duñ dañ dina ci aw yiw li fekk ñi nga teel a dog tey yéex a xëdd kon dama ne kon ñaar yooyu bu ci nag sunn la jëleen ci abi Hurayra radhiyallahu anhu wax ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam sallam na ne sun borom wax na ne ci xadisul xudsi inna ahabba ibadi ajaluhum fitra wala a'jaluhum fitra nem sun borom neena ki ma gënal ci sama jaam wala ñi ma gënal ci sama jaam moy ñi ci gëna tel dog ñew ci gëna kon tel dog gi solo bu leer jant bu fa nekkati nag di di di di jàpp jëmale ëllëg jëm jëmale leen loolu loolu tengal diine am na it nag yu yàq koor mubtalaatu sawm bokk na jee ko yàq lekk ak naan ta tey ko lekk ak naan moo xam yaa ko tey moo xam da ngaa juum da juubu ki juubu mooy juum lekk wala juum naan day àggale bis ba waaye nag da koy fay bu jàllee su fekkee da ko tey nag am na leneen lu ci war dañ ci ñëw niki noonu sëy xam nga juum lekk ak juum naan ma naam am waaye juum sëy moom amut sëy moom ko def yaa ko tey <laughs> moo ko tey kon sëy it ba tey dafay yàqu wax nañu génne ma ni yu ci lu dul sëy génne ma ni yu wax ne yaa ko sabablu doonte sëyoo mooy dafa yàqu koor bokk na ci lépp lu àgg ci biir bi ak fu mën a jaar génne man yu googu na su fekkente ne dafa danga ko sabablu ci kaw xalaat wala xool wala jonjoo ba génn ci yow su boobaa koor ga yàqu na dangay fay ba noppi kafaara comme ki lekk wala naan te tayu ko na muy kafaara wala ku ku sëy na muy kafaara lépp lu lu lu fa dara jaar mooy dangaa tuufu mu jàll ba ca bëliga sa koor da yàqu dangaa def gar ci say nopp ba mu jàll ci bëliga ndax xam nga yooyu yëpp ñoo ña nga daj ci bëli Nopak, betak bakana ak bakkan ak yëpp ña nga daje ca bëli ga fu ci dara ja fu ci jar fu fi dara ci lu lu yolom lu mel ndox la ba ca ga rek yak na ga di jalut. su lu dëgër la nak dafa am lu loo wan lu mel ni xooxu buy dafa dem ba ca bëli ga jalut, bo mënee fexe ba mu génn ga yàqut ca jàll ga rek la yàqu parce que lu nooy la ba ga rek ga bokk na ci itam yu yàqu koor muy tux te ña koy def nañu xam ne tux day yàqu koor ni ko tam banawti ko xet gu am doole lool am na yoo xam ne ku ma saam soj da nga koy xëcc ci sa bakkan mu ànd mu am mànt bu bu foor di faj soj loola dafay yàqu koor bokk na ci eh, cuuraayul saxaru cuuraay saxaru cuuraay dafa yàqu koor kon boo ko taalee ci sa néeg ba ba ba saxar sa dugg la sa koor day yàqu waaye bu dee saxar su matt nag du yàqu koor jigéen ji ci wàññi togg saxar su matt donte sol na ko yàqul koram waaye nag cóolooleel ci nag da yàqu koor <coughs> soo tiimee ci li ba cóolool li dugg la ba nga yëg ko koor ga day yàqu ni ko doon rooteel sa yéene dem ba yàgg nga ne ah wóorutu am amutoo daal yéene woor donte lekkoo naanu waaye teg nga sa yéene koor ba koor ga yàqu na ni ko noonu wàcc moo xam ne yaa ko sabablu na ngaa dugal sa baaraam ci sa gémmiñ wàcc koor ga yàqu na waaye bu dee wàccu ma la nodd nag moo xam ne moo jékki-jékki ñëwal boppam li fekk war naa too ca dara koor ga yàquut ku def dara ci yooyu ma tudd su fekkee njuumte la fay bis ba dong ko war su dee tey nag day fay bis ba kafaara teg ca Kafara ju ñu naa ko léegi nga woor bis bu nek nga warul ko ñaari weer yu ma sekk yu toftal yu toftal yo xam so xasse tambali bala nga dog ñaari weer day mat soo te tamatu da nga tambali wat mba boog nga leel juroom benn fukk miskin ken ko nga jox ko lu ko suur añ mbaa ko la lañu kafara benn bis ci amit yuñ ca sop bokk na ca soy dog nga tandar ba dañ ko sop ci koor ndax li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ita aftara ahadukum fal yuftir ala tamrin fa inoo baraka képp koo xam ne kuy dog ci yéen na doge tàndarma ndax am na barke tekki na fi isaalim fi isaalim yeji tamran fal u fi inoo tahur su amul tàndarma na doge ndox ndax ndox lu laab la abu daawud ak tirmisi yi solo bokk na ci itam ab julli suy dog ci tandarma mu def ko lu tol lu tol ben ñett juróom juróom-ñaar ndax yalla da inna laahi witrun yuhibbul witra ne yalla yalla dafa tol te dafa ko ndax yalla kenn dong la ah amna ñu bu dee ndaw ko nday wala bu soy ndañu ak ñom juróom-ñeent lañu def <laughs> bokk na ci tam ñaan sopp nañ ci eh, ki war bu dog mu ñaan waxtu dog wi foofee yàlla du fa delloo ak ñaan waxtu yi ngay doog nga ñaan waaye ndaw ko ndaay moom dañu yàkkante ba duñu tal ñaan dañu ko fàtte sax tagg yàlla ci kam laay nam ko yeyoo sant xéewalam ci teggal gi mu la teggal coono ba noppi yool ba des fa tey yool bu màgg-màgg ibnu abbas yàlla na ko yàlla gërëm neew na kaana nabi sallallahu alayhi wasallam ita aftara qaal allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim xaraju at-Tabarani yi Ibn Abbas yenn saa su ma sàndoog day wax ne yow suma woor nanu de tayoo dong lan doon waral te ci sa wërsëg lañ doge maa ngi li ñu doge yaan ko wërsëgale kon yàlla nag nangul ndax kuy dégg nga ko xam nga Sëñ am na ñaan gu mu ci defoon am murid nag lépp lu mën a doon rek lu Sëñ Tuubaa dafa dafa ci gën a barkeel ci moom ñaan nga defoon ci booy dong nga wax ko ku ne war na ko man diko diko diko diko diko diko diko di ko di ko di ko wax saaboo saaboo dogee xamdan li aanani fa sumtu wa saqali rizqan bihi aftartu falaka wahdaka ilahi sumtu sum bi xudratika akhad aftartu falighfiran jamia ma qaddamtu ya ghafir dhanbi wa ma akhartu wa kullama asrartu aw a'lantu wa kullama alimtu aw jahiltu anta ilahi la ilaha illa an taqini azabakal mujalla yawmal qiyamati bi jaahil Mustafa wa sallina alayhi suma sharifa mi lu gàtt nga xam ne xeetu façon jégalu bu nekk ngi ci kon farlu ci ñaan ci booy dog si yi ci sopp la bokk Abdullah ibn Omar neen Rasulullah su ma saan dog day wax ne dahaba zama wabtalatil aruq wa sabatal ajur insha allah insha allahu taala tabrani moo ko gën ak xaakim su ma saan day wax ne coon marwa dem na ñak wa fenn na to yol baa fi des inshallah bokk na batay yiñ ci sop baril sak jaamu yalla lo lan jaamu yalla nga yok bari ci itam loy saraxé ak loy rafetel jëm ci say bokk say ñalé jirim yi miskin yi ta day ci jokk ak bokk ta day defar ay digënté ak jépp jëf ju baax jo jo xam jo man rek nga def ko ca ci weer wi am na may yu ci yu ci nekk yoo xam ne doo ko fekk ci fen feneen ci feneen fu ci yooyu ci mboolem weer yëpp yonent bi sallallahu wax na ne man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaba wa ihtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min danbi képp ko taxaw di naafila ci weeru koor ngir gëm yàlla ak fàggu tiyaaba ñu jégal ko la jiitu woon lépp ci ay bakkaaram bokk na ci itam li'tikaaf sunna la ci fukki fan yi mujj ci koor nga feeti ko ci jàkka ji di fa jaam yàlla xeetu jaam yàlla guñ ko yoon sa sun da ko daan ko def fonkon ko lol gaay baax yëpp dañ ko daan ko mel ni Cheikh mohammed Murtada mom la xam fi ci ko daan ko def mom fukki fan yi mujj yëpp da ko daan fàtte ci yàkk ji ba koor gi jeex mu jaam yalla gu am solo lol mara yoon sa sun daana daana farlu lol ci ay xeeti jaam yàlla yu woote yu teqali ko rawatina ci fukki fan yu mujj yii nag ci koor gi ba tey am na yu ñu sib nag ci koor itam yuñ ca sib ku ko def luñ sib mooy loo xam koor ga waaye bay bay bañoon ko defa gën nag mbokk na ca yooya mos eh, laam caf ko di ko yàpp kon jigéen ñi dañuy def de mos mos ba xam saf naam déet xam nga li yëg caf ka ci gémmiñ gi la gémmiñ gi rek ay yëg caf ko lu xas romb gémmiñ gi xamatoo lu mu saf kon góox ba bu dee lu saf suukar boo ko góoxee ba da nga xam sam suukaram déet bu dee kaani lu mën a doon nga xam dañuy góox yàbbiwaat siib nañ ko waaye yàqul na koor ni ko doon bari wax wax ju bari wax ju bari sim waaye wax joo amul benn njariñ koo xam ne fa fa toll rek ma ngay ma ngay ma uh, rek am ñu ko yàlla bi ne ñu bari wax wax ju dagan nag moo tax ñu wax wax ju daggan baril ko dañ ko jasib bokk na ci leen def garab ci sa ci sa gémiñ garab gu am caf ko ci sa gémiñ te ngante ko bokk na jëfandikoo pat pâte dentifrice ci bëccëg bi dañ ko sib ba ca dara jàllee ba ca bëli nag da yàq koor ga moom mbokk na ca fo ak lépp lu amul njariñ ci wax ak ci jëf ni ko waxi bébbant mooy wax ji amul njariñ yenn saa man lam yada xawla suur xawla suur wala amala bi falaysa lillahi xaaja fi ay yada taamu wa sharaba képp ku bàyyi lu waxi neen ak jëfi neen yàlla amul soxla ci mu bàyyi lekk mu naan mooy yàlla amul soxla ci koram rek kon xel man daa dem ci li ñuy tudde lido lido nga xam ne bu koor di jub mooy ci mbokk na ci lay gën a jar ca marché ba su koor di jub tabli li de mooy gën a dox ci marché bi nañu xam ne bokkul ci koor am day sànq jëf koor dafa barkeel lool loo jëf ci lu baax lu mu tuutu sum la da koy fule mu bari lool ko am nag jamono ju barkeel ñu mel noonu doo doo ko jeexal ci loxo xam ne du la jural dara du la jural dara loolu ak neen loolu ab juli war na koy moytu am na it yu ci dagan mana yu ñu la may nga def ko ya xam du du jotee ga dara dagan na ci kor mu def lepp lu ko dakal aw tangor mel tal, tal taal taal ventilateur wala mu taal climatiseur wala mu xëppoo ndox mu sedd wala sotti ko ci ko bopam wala aw yaramam wala gàllaxndiku wala saraxndiku ta bañ bañ ko soril lo ci jumuhurul fuqaha ñëpp nangu nañ ne dagan na ndax li ahmad solo ak malik ak bo daoud ak jël fi abdallah abdallah abu mané kenn ci sahabi yunus yun saasam nettil bokk la mu ko wax ne ko wala xad rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasabbu ala ra'sil ma wa huwa saa'im min al har muy ndox mu sedd ci dafa wor wala wala ci lañ tegtal ne kon loolu dagan na dagan na it nit ki xëyee janaba yàqul kor dafa sëy soxnaam ci guddi gi yaxa sangu bam naaj yàqul ca kor ga dara daal lañ fay déggee mooy julliwul suba moom kooku daa faat suba ndax eh, mënta julli te sangut te suba weesu na kon xana bu am baka bakaar mooy la ma am ñak jël si jël ci way xeyal gëm xëyaale koor ga ci eh, cangay la bam naaj ci koor ga dara day sangu rek te fay suba kon mana na sangu tawoor yàqul dara ci koor ga mbako ñettel dagan na batay ci aji war ji lepp lu munta mayut lepp lo munta mayut lu melni ni poussière bi dafa bari ba solo la yàqul koor borom machine wal bi sunguf sunguf si naaw di ko solu ci luñ julluwut yàqul koor dañ koy jéggal jigéen ji ne ci waañ wi togg sax su mat si dugg dugg ko yàqul kooram ay taflit muy ay lor lum bari bari bari bari yàqul koor di ko wan yàqul koor ni ko noonu xet gu neex mi laal parfum yàqul koor ak yu demee ni moom niko nonu dagan na ci aji war jit socc ci mboolem bëccëg bépp sop nañ ko sax nak ci sat mbañ dak takal nak dara lu am ciaf ko lo xam day mën ag ba ci boliga ndax li yonent sa sama xamne lawla an ashqa ala ummati la amatu bi siwaay bi ki kul inda kulli salatin mais budu wana baña a baña tek finna baña tek ciona sama xet digal ñu socc waxtu julli wu nek kon socc lum sopan la waaye bu dee na dañ cee sàtt mu bañ a doon bant bu tooy na na doon socc bu wow ndax bant bu tooy day day am ndox te ndox moomu su jàllee mën na mën na yàqu koor ga noonu la koor am it ay teggin yoo xam ne nit ko war naa sàmmante ko ndax mooy tax mu jot ci yool mooy tax suñu bam nangu ko bokk na ci teggin ya mu fekk ay cëram bañ caa def lenn lu yàlla xaraamal mooy damm ab gisam bañ caa xool lu xaraam buñ ca xool jàmbur bu jigéen eh, wala muy banati ko xet goo wax na ko araam la fekk aw làmmiñam ba bañ caa fen bañ caa jëw bañ caa rambaaj bañ caa saaga bañ caa wax dara lu ñaaw fekk ak ak déggam bañ caa déglu jëw bañ caa déglu misik bañ caa déglu wax ci bon bañ caa déglu lenn loo xam ne lu lu lu dàqoonteeg fàttu ko yàlla ak tudd ko subhaanahu wa taala yooyu donte dafa xaraamoon naka jekk ci mboolem weer yëpp ak bis yëpp ak guddi yëpp waaye xaraam nga day gën a tar su ci weeru koor ni kon jëpp wax ak jëpp jëf ju wuteeg charia eh, ak jëpp jox dafa dàqoonteeg jaamu yàlla jaamu yàlla ruuxu gi dafay wàññi ab yoolam man da ne sax ba far sipi yol mooy mooy xagn ko kan ab yol ba doti ci am am dara far ndax koor dara taxul ñu yonal ko lo wessu yar bakan. borom xam-xam dañu wax ne bi suñ ba mbindee bakkan man da ko laaj ne ko yow bakkan yaay kan ak man may kan mu ne ko yaay yow man may man ne sun ba dugal ko sawara diiru yak génne ko ne ko bakkan yaay kan ak man may kan mu ne ko yaay yow man may man mu xifal ko wenn waxtu rek wenn waxtu bakkan yaay kan ak man man may kan mu ne ko may sa jaam bu doye di bu soufey ngay sama borom bu màgg bu tedd bu kawé ma xamne kon koor ndek ndekata bakkan kon xif dong nga moko man yar loolaa tax ñu faratal koor ci non kon dañ ko fat yonal ngir selal bakkan yi jubanti jikko yi laabal xol yi setal ruuxu ak yaram ci xeeti mbewte yi ko mën a xëcc yépp ak màmmuk bakkan nga xam ne soo xasee màmm man téye ko mën na ko mën na ko të bokk na ciit ci teggin yi mooy néewal ci saw ñam ca waxtu dog waxtu xëdd ndax sunu ma neew na wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin lekk leen naan leen waaye bu leen ëppal nag bu leen yàq ndax yàlla bëggun ñi yàq te ëppal ak yàq la ak li yonent bi sallallahu alayhi waxoon ne maa mala aadamiyun wi an charran min batni bi xasab ibni aadama luqaymatin yuqim na sulba fa in kaana laa maxaalata faa'ilan fa thuluthun li taamihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi axrajahu tirmidi nee dom Adamus aadama ndab lu yes biram, mbale ndab lu muy feesal nek biram ci yes. ca doyan ko sëkk ay tib rek yo xam ne dana ca mën dana ca mën a eh, dëgëral yaxu gannaaw ba man taxo jaamu yalla su ne ba munta ñak nak na xaj biram ñetti xaj ben xaj bi ngir lek ben bi ngir naan ben bi ngir noy aji waji sa bu biiram aku ñam ak ndox nday dal di tayal ndax ay ay ay léegi tayal tayal ci lépp nelaw dong lay bëgg day daal di lot ci yëngatu mën naa nelaw sax ba far du julli suba bu dee bu dee xëdd la ca ëpp ci xëdd lu bari su tëddee day nelaw du julli suba mbaa bu ko mënta ko mu ko mënta ñàkk joxe da ko joxe ci tayal nga xam ne da nga gis ne kii moom li def sa wuri ni kon su feeslee biiram itam ci ci ci ci ci dok noonu bu dee suba day nelaw ba du julli suba eh, te xeeti julli yépp julli subaa ci gën mboolem julli farata julli suba moo ci gën ci waxtoom kon daa jégam ji xiir kon ci nekk ko sawar ci jox jaamu yàlla yi rawat ñu tedd yi te lay tax sawar nag mooy lekk lu yem loolu la Sëñ Tuubaa di wax ne wala tukathiri suxuura wal futuur mumtali al batni ولا فتحرم الأجور وكل من أملأ بطنه طعام وأكثر الشرب عليه والمنام فإنه مع البهيمة السواء إذ فاته خير كثير فتوى سنت بانينا بل باريل سخد بفيسا سبير دل كون دفنا لخن خن أب يول ولا أي يول نكيب كفيسا البيرم أكو نيم باريل أجنانم ak nelaw nee mbok mbokk xar yeeg bëy yi ci mbedd yi ñoo wat waate ndax yiwu bare bare bare faat na ko te mën na sax alkande mu kan wa ba'dhum yakulu akla albaqari waqta futurihi wa waqta sahari hatta yakuna batnuhu saqila jiddan fa sar qalbuhum mashghula andi krabi bi da insan waxi lahi fatil fil Sëñ Tuubaa nee na am na ñoo xam ne bu ñuy xëdd mbaa ñu ndog dañu mel ne aw nag aw ndaw ko ndaa buy dog wala muy xëdd day mel ne aw nag rek aw nag ku xam ne na muy lekk na muy naane nga xam ne da ngay gis la koy wër la koy wër na muy baree dalay wën lii mu mënu ci dara waaye nag baril ga baril ga kon lu mat a moytu la neen nag su ko defee nag day dem ba diiram bi biiram bi diis gànn mu soxla nag leneen lu tuddu yàlla fàttali ko soo demee wootee ne dama waroon ta fek ko koor lu tolni fatil kep du ko ci jele kon ndekete kon lek gu bari dana xagne ab yol ci kor dégg nga li wax waxu lay xiw fàttali fil khiyam koor gam du ci jele dara dara yàlla jàll musal bokk na ci li Sëñ Tuubaa wax ci bi muy firi wa anta sumu khairul lakum من ne له ظاهر وباطن ظاهره ترك الأكل والشرب وما والاهما في النهار وباطنه الصوم عن كل ما يدخل النار وهو الإمساك dafa wax ne koor dafa am zahir am baatin zahiram mooy bàyyi lekk bàyyi naan ak ya demee ni ñoom ci bëccëg bi baatinam nag mooy woor ci lépp luy tàbbal ni sawara mu téye ca boppam mu teg ci ne wa siyaamul qalbi sawmuhu an kulli ma yuaddi ila an-nar min al aqaid wa iyad billahi taala wa al lisani sawmuhu an kulli ma yuaddi ila an-nar min al aqwali wa iyad billahi taala wa al jawarihi sawmuhu an kulli ma yuaddi ila nar min al afal wa iyad billahi taala mané ne làmmiñ dafa wax ne euh, dafa ne euh, dafa xol kooru xol mooy woor ci ci lépp luy tàbbal nit ki sawara ci xeeti pas-pas yi yal na ci Yàlla musal kooru làmmiñ mooy woor ko ci lépp luy tàbbal nit sawara ci xeeti wax yal na la Yàlla musal bu dee kooru cër yi nag may wor ko ci lepp luy tabal tabal sawara ci xeeti jëf yalla yàlla ci yalla musal mu wal qalbu ya'taqid wal lisan yaqul wal jawarihu tafaalu xol may fas lamine may wax cër yi ñoy jëf wa al qalbi tafakkuru saa ta'dilu ibadata sanatin wal jawalan fi malakotillaahi wal fahmu anillah وفطور اللسان ذكر الله وخول الخير والنطق بالحكمة والدوران فيها وفطور الجوارح الدوران في رضا الله تعالى والتخيل فيه نان نعم، خول بوي دوغ نك دوغو خول دا لو ور لوني داي دوغ بو دوار شي خول لامي دوغي ماي خالات يالا تا خالاتام وين وقتو دانا تولوك جام يالا ات اك ونديلو ني سي بير ملكوت الله ak ak dégg yàlla muy xam yàlla dogug làmmiñ nag mooy tudd yàlla ak wax ju baax ak wax xikma ak wëndeelu ci diggante boobu su dee dogug cër yi nag mooy wëndeelu ci biir ngërëmal yàlla ak tënku ci bañ ko génn moo tax ku ñax Cheikh Issa Lo ci mag ñi dafa masalaaj sintuwaa ko ala yaa rijalallaahi qulu li mubtaxi usulan ila mawlakum wa kayfa yasna'u simi tontu ko ne ko xurujum min atadbiri bil ilmi wa tuqa wa tafwid amrin lil ali wa tadarru'u fa man farra lil mawla bi tafwid amrihi ilayhi naja min kulli ma yatawaqqa'u ila allahi la lil khalqi sir wal tamis bihi mawahibu fi darin tughni wa tadfa'u dafa wax ne yéen góori yàlla yi Sëñ Tuubaa rek lay wax waaye day daf bokk ci màggal nit sooy wax ak nga def ko mbooloo xam nga sunu borom lu ci bari mbooloo def ba fi inna ansalnaahu nun yàlla nu wàcc sunu borom lu bari booy wax ba fu da ko def mboloo ndax bokk ci teggin booy wax nit ko nit màgg nga def ko mbooloo mu ne yéen yéen gaa yi yàlla yi wax leen kii sàkko àgg ci nan lay def sunu borom ne ko xanaa génn ci génn ci li mooy summi ko ci lépp tay sétantal na ci xam-xam ak ragal yalla ak joyal mbiram mbiram yépp jëmi ko ci yalla ak di toroxlu ci na képp ku daw jëm ci yalla ci joyal ay mbiram jëmi ko ci mom dana mucc ci lepp lo xam lay ala gala mu ne kon nak doxal jëm ci yalla waye bul dox jëm ci bindé fi ta nga sak ci euh may ad nak alakhira yo xam dalay jarin euh ta dila doy kon yoyu manes nako Jange, ci lu kor. ci kor su ko day ñu ah, su ko ñew na kon ci lu aju ci laylatul xadr laylatul xadr dafa nekk lu am solo itam lu mata a fonk te ci ci diggante bi lañ ko yaakar fukki fan yu dañ ko dàkk ci fukki fan yu te diko ci bis yu lay doxal nek guddi gu mag gu tedd di yenn guddi ci ëpp solo ci guddi ci dundu doomu aadama bi doon ab julit sun baam waxtaan ci ci lu bare bare bari ci ay ay ayat yu bari yu tedd solo saa sama wax ci tam lu bare bari ci ay hadith yu bari ma am ay ngëneel ak yum ragn ko yu bari am li rot ci karim li rot ci ahadis nabi sallallahu alaihi wasallam mu nekk na lu bari ay tur bokk na ci ay turam laylatu tanzil guddi gi wàcce gi ndax ci la alxuraanu karim wàcc sunu wax ne inna anzalnaahu fi laylatil qadr noonu yàlla noo ko wàcce moom alxuraan ci guddi laylatul xadra bokk na ci ay turam laylatum mubaaraka sun ba moo ko tuddee noonu ndax dafa barkeel ab yool ci képp ku koy taxawe ak di ci jëf jiw sun boom tudde ko noonu ci alxuraan karim wax ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka wàcce nan ko alxuraan ci guddi gu barkeel bokk na ci ay turam laylatul fasli wa taqdir guddi teqale gi guddi dogal gi ndax ci la sun boom di teqale mboolem dogal yëpp guddik laylatu xadar ci la sun boon di dogal li xew ci at mi lépp yow ndax kuy fekke déwén nga wala doo fekke déwén ndax da nga fi wéradi ndax da nga fi am alal ndax da nga fi ñàkk ndax da nga fi nàngam ku nekk lay xew ci yow ci ba laylatu xadar desuwaat ci guddi laylatu xadar lañ ko dogal ci yow nga xam ne kon euh, ci la ñuy wàcce nag yooyu ba ci lawxul mahfuus ndax ndax alxuraan ci lay la woon la wàccoon jóge ca maanaam maanaam jëmmi jëfi li sunu dogal ci jaam bi war a jëm at day da ci lawxul mahfuus daay wàcc nag ci malaaka wàcc téere téere jëf jëfi ko mën a kenn ko sab téere mu wàcc ma sa sa wàcce ko ca li war a xew ci yow ci mi ñu wàcce ko ci sa dossier nga xam dafay làmboo mboolem jëfi jaam bi ci mbir adduna yi ndi ko wërsëg ab ab dig yi xew ci yow yépp loolu la wax ne fii xaa yufraxu kullu amrin bi ci la teqale lépp lépp lu am solo turam wi mu gën a siiwe nag mooy laylatul qadr yu ñëpp xam nga xam sun moom tudd na wàccuwaayam tudd ngëneelal taxaw ca ak yool ba ak tiyaaba ja ca nekk ci jaamu ga ak ñaan ca yàlla ndax dañ ci fulandil jaam bi yooli jëf ju baax ci guddi googu nga xam ne ab yoolam dafa mel ni yoolub wala dafa ëpp sax yoolub junni junni ati yàlla julli junni junni weeri jaamu yàlla bu ñu nangu laylatul xadr xayrum min alfi shahr bokk na ci itam laylatu salaam guddi jàmm ndax guddi la goog yàlla da ci wàcce barke ci suuf si ci wàccuk malaayika yi dafay matale suuf sépp aw yiw ak jàmm matale ko yërmande yaa ni julli julli dafay da ciy yëg tumaaniin dafay da ci yëg ak dal ci jàmm na su ma ne salaamun hi xataa matala al fajir jàmm rek xew ci guddee ga ba kar fajar di jot mu mela ko ci jàmm ngir mucc mucc ga ci mucc jàmm ñi mucc ci mbugalum yàlla te sabu topp gañ cee topp yàlla ak jàmm ko ci jàmm bokk na ci itam laylatul xufraan guddi njéggal ndax guddi la ko dañ ciy jéggal jaam ñi mi seeni bàkkaar ci képp ku ko taxawee te sellal ko ndax yun saa su newoon na man qaama laylatal qadri imaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqaddama min dan bi képp ku taxaw laytu xadar mooy naafila ko <coughs> te gëm yàlla lal ko fàggu def na ko jéggale jiitoon lépp ci ay bàkkaaram kon guddi njéggal la bari googu mu bari ay tur na dafay tegtal ak màggaayam ndax suñu tubaa newoon na wa alam bi anna kathratal asaami dalilatun an la musamma asaami da nga xam ne bari ay tur dafay xam ne kon <coughs> dañu jàppale tu xadar kon bokk ci guddi weeru ramadaan nga xam ne dafa saw bu ràññu gi dafay dellu rek ci nekk gëm nekk guddi gu alxuraanu karim wàcc alxuraan dafa gën balum laal loola gën alxuraan dafa gën balum laal loola gën jibril mi ko doon wàccee moo gën ci malaayka yi yonente bi ñu ko wàccee ci moom moo gën ci yonente yi weer yi mu wàcc moo gën ci weer yi muy ramadaan guddi gi mu wàcc moo gën ci guddi muy leetu xadar kon ak gënam moo tax lu mu laal loola gën saa su neew nag ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan di ko jàngale kon mu am ngëneel kon lu lu lu lu màgg ci ka cay jëf moo def suñu baa ne yaa shahr rabbin karimin fii ka jaadalana bi laylatil xadri zaatil fadli war raxadi zaatil fadli war raxadi ci sa biir yow yar ko lan su moo defal baaxi guddi leen xadar mu nekk borom ngëneel ak i xéewal weer am ngëneel waaye weer bari xéewal jël na ci abi hurayrata radiyallahu anhu wax ne لما حضر حضر رمضان لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم abi hore naan yon saa dafa ne weeru ko dafa moy mooy len weeru ko day ñëw na di weeru wax ne yalla faratal ne ci yeen wor ko dañ ci tejj ji bunti aljanna yépp afal tejj ci bunti sawar yépp rap. jeng ci seytaane yi te ken nag nga ci gog nak mo gën junni weer kon kuñ ko xagn rek xagn nañ la xagn nañ la yiw yépp kon da wax ne mayees naa junju ci ne yàlla subhaanahu wa taala dafa tànn ci jaam yi sayyidna Muhammad def ko mu gën ñëpp nekk ab yonent ngir bindeef fi tànn ci weer yi ramadaan mu gën ci weer yëpp tànn ci guddi yi leelatu xadar mu gën ci guddi yëpp mu melal na guddi googu ci ne borom daraja la nim nekkee du barkeel inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka inna kunna munzirin su mën ne wàccee nañ alxuraan mu nekk eh, eh, eh, ci ci guddi gu barkeel mu nekk loo xam ne dañ ci xuppee nit ki ngir mën a xam fa mu war tànkam wàcce ci itam saar woo xam ne dañ ko jàng ba ko saar yi taxaw muy suratul xadr amma sabu tuddee gi ñu ko tuddee laylatul xadr ay gis-gis yu bari am na ci yu wuute ci borom xam-xam yi na alqadr dafa am ay prix yu wuute alqadr dana firi daraja alxadar dana firi kem muy tolluwaay alxadar dana dana firi dogal am ñune ndax ci dogal xadar moy taqdiru laahi taala fiha ma yasha min maqadir sana ila laylatil xadri laylatil xadri taliya khal taala fiha yufakhu kullu amrin hakim am ñune li tax ñu dogal xadar moy dogal gi ci sunu di dogal yi xew ci at mi ba ba ba déwén kon kooku da ko jàppi ko alxadru kon dogal guddi dogal mu kon li ci sun bon dogal lu ko soob ci dogalee at mi ba kari laylatul xadr gi desiwaat ñoom neneen loolu tax ñu tudde ko laylatul xadr am ñeneen ñu ne taasimu xadri laylati nafs nafsiha wa uluwi sharafiha bayna layaali kon dañoo firi ñoom alxadr daraja foofu ñu ne li tax ñu tuddee ko laylatul qadr mooy mooy mooy mooy dara ji dara ji guddi gi ci boppam ak mm, kawe waaw kawe tedd nga am ci biir guddi yi kawe gam leen kawe moo tax ñu tuddee ko lay mooy guddi gu kawe am ñeneen ñu ne taqdimu taati lay hati yem yamtaasu bi xadril adim wa ajrul mudaafi ñoo itam ñoo itam nday mel ni eh, dara ji dañ ko tekkee ndax ñu wax na mooy ki ci jaamu yàlla di ko seelal ci di ko na muy ràññi ko ci dara ji ju màgg li mu ca amee ak nañ koy fulale ab yoonam yeneen yeneen gis-gis am na ci bari waaye soxla di ko indi fii ñetti yor doy na ci jëfi jullit bi nag ci laylatul xadar ana lan nan la ca war a def sopp nañ ci jullit bi ci guddi laylatul xadar mu gaawantu farlu ci topp yàlla yi ak jaamu yi tafarlu ca ñu di ca tudd yii ba ci njëkk mooy alqiyaamu mooy taxaw ca naafila ndax yonent bi saasam bégle na bégle na ci ko ci taxaw ngir gëm yàlla fàggu tiyaaba ci njégalug yàlla man qaama laylatul xadri imaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqaddama bi kon la gën nag mooy nit di ci roy julli bi di ci roy yonent bi salaasam ci ci daan ci daan taxé ya. salaasam li mu ci daan julli mooy fukki raka fukki raka ak fukki raka um, noppi witaré ben raka kon ihda asraka mooy fukki raka ak ben nga diko julli par ñaar par ñaar di selmal su noppi witar ben raka su do julli ko ëpp batay ayut ndax gis na sahaba yi julli lu ko kon sol neexee bañ nga bañ caa tënku julli lu ëpp loola sa kem kàttan ba ko ñaari ci jëfi laytu xadar mooy ñaan ak tudd yàlla yendu saa jàngal na soxna yàlla ko yàlla ñaan gi ñu ñaan ci laylatul su fekkee xam nga ko ndax da ko da ko laaj da ko laajoon sax ne su fekkoon xam naa bi eh, laylatul xadar ana gan ñaan moo gën ma di ko ci ñaan yenn saa su ne ko ne ko da ngay wax ne allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya sunu yalla ab jéggal la kon nga te ku bëgg njéggal nga yalla nag ma jéggal ñaan googu mo gën ci ñu ñaan lay xadar la jojo allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni bako ñettel ci li ñuy màggale guddi moy qiraatul qur'an jang al Quran sop nañ baril ko ca ku mëna wacc ab kaamil ci guddi gi gën su ko mënti mu jang ci lam man rek wala sax mu lu ko dana am ci lolu yol bu mag mag mag bu rëy ba ko ñentel ci ñu màggalee Laylatul xadar moy al isti'dadu li ihya'iha moy wajal ak dundalam jullit bi dafa wajal guddi gi ca fajar ngay tambale kon alxames alxames si fajar kon ñi ngay tàmbali waajal guddi gi xéer lool ci saraxe ca xéer lool ci dogal ci aji woor maanaa ko woor ba ngoon nga jox ko lu mu ca bis ba baril ca ñaan ca waxtu dog wa xéer lool ci sunan sunan yi nga xam ne ay rawaatib lañu ak yeneen sunna yi niki bu bu ñu nodd nga ngay baa mu nodd nga topp ci lu kiy nodd wax nga waxaat ko ndànk ak ñaan gannaaw ak nodd ak baril ci tudd yàlla ci guddi ga ak gaaw caa dokk dolli tam itam gën caa fonk sa ñaari waajur teral leen ca seen seen seeni xol yépp yi ñuy màggali leetu xadar la bokk ana naka lañ koy xam ne nan la ñuy xam ne leetu xadar agsi na wala agsi gut yonent bi saasun dafa waxoon ne inna allaha subhanahu wa taala ixtaaral ayaama فجعل منهن الجمعة واختار الشهور فجعل منهن شهر رمضان واختار الليالي فجعل منهن ليلة القدر واختار البقاع فجعل منهن مس... منهن مساجد فاغتنموا رحمكم الله خير ليلة في خير شهر في خير بقعة اختارها الله تعالى المولى وزينوا وزينوا ذلك بأنواع القربات التي toxamado xawlan wa fi'la ndawani sun bon dafa bind weer yi dafa dafa bind bis yi tan ci bis def ko muy bis bi gën ci bis yi muy bisu bu tan ci yi ramadan def ko mu gën ci weer yi tan ci guddii leelu xadr def ko mu gën ci guddii tan ci pakki jakk yu jumaa ñu gën ci barab yi nako na ngeen mang ci guddi gi gën ci guddi gi ci weer wi gën ci weer yi ci barab yi gën ci barab yi ta ngeen taral taral yoyé ci xéeti jégeñ jégeñ lu yalla ci xeeti jaam yalla yu ñu sant ci wax ak ci jëf mu indi benn hadith ba xam soxna Aysa solo yalla ko yalla gërëm mu ne kana rasulullah sallallahu Alaihi wasallam yu jaay wiru fil asil awakhir min ramadan wa yaqulu taxarro laylatal xadri ala asal awaxir min ramadan wala yu xaawir nee na Rasulullah daan natt da ko daan natt ci fukki yu mujj ci ramadan te daana wax ne dee leen natt den dàkk laylatul xadri ci fukki yu mujj yi ci ramadan beneen xadis Rasulullah sallallahu alayhi wax ne taxarraw laylatal xadri fil witr min al asril awaxir min ramadan na ngeen dàkk ci bis yu tool yi ci fukki fan yu mujj yi ci ramadan borom xam daal di jël nag ñetti hadis ñetti hadis yooyu tegtaloo ci ñu ne kon nag faw kon laytu xadra kon bis bu ajjuma lay dajal bu digg ajjuma faw ci fukki fan yi mujj lay doon faaw bis bu toll lay doon ñu xool ne kon ngir ñu mën a am ne bis boo xam dajal dajal ñetti sart yëpp kon faaw ñu xool ban bis la weer yu feeñ ci la mën a xamee kon ban bis mooy dajal ñetti sart yoo nga xam day doon bis bu ajju guddi ajjuma di ci fukki fan yu mujj yi mën a doon bis bu eh, moo tax am na ci xasida gu ci Sëñ Tuubaa indi da ca netti waxi borom xam-xam yi wax ne duunaka yaaman laylatal xadri taruum nazman ata bi ma xaka ahlul ulum nee yow mi yow mi may déglu yow mi sàkk xam laylatul xadra kaay ma in wax la li ci borom xam-xam yi indi li ci borom xam-xam yi nettali xad axbaru bi annaha takunu fi nasfihi al axiri id tabinu nee na wax nañ ne xibaar nañu borom xam-xam yi ne ci xaaj bu mujj bi ci koor gi lay doon in istahalla ramadaanul azamu bi laylatil ithnayn yaa may yafhamu fa laylatul xadri takunu abada fi taai baadal yaai inda man hada na boroom xam-xam nee nañu su weer wi teroo bisub ajjuma yow miy déglu neen laytu xadar kon daana nekk fukk yaak juróom-ñeent du ci ñaar fukk ya waaye am na ci sart loo xam ne boo doon ñaar fukk doo ci fekk bisu dajale sart yooyu mooy guddi ajjuma ba noppi doon bis bu toll lakin iza stahalla shahru nusuki fi thulathaa'i fa laylatu haki nee na su fekkente ne weer wi dafa teru nag bisu talaata kon guddi ñaar fukk ak juróom dajale ñetti sàtt ya guddi ñaar juróom tool fukk yu mujj la tool na guddi gi ajjuma la fay suma yalic bilar bon ay fa innaha fi zaa i ba'dal yaay lol ba tey ci ci ci ci eh, ci fukki mujj yi ne sa bu tabbe na bisul alarba kon fukk ak juroom ñaar lay doon boo am nga ak tol ak guddi ajuma ta so demon ci fukki mujj ya doo ci fekk bisu waaw wa in yalic yawmal khamis ramadan fa fi kajin bil jimi tilkatu saban su weer wi na nag al khamis kon guddi ñaar fukk ak ñet moy dajal ñet sartiya fahisuma yelij anuñu bin fahisuma yalux wa in yelij anuñu bin wa in yalux waaye bu ci ne man baax na wa in yelij mooy bu tàbbee wa in yalux mooy bu feeñee amma itha bil jum'ati al xilaalu laaxa fa fi katin ala ma qaalu amma su fekkee ne bis bu ajjuma la weer wi teru kon bisu ñaar fukkeel ak juróom-ñeent mooy dajale ñetti sart وإن يلج بالسبت يا خليلي ففي أكن رم رم تلك بالتبجيل su fekkente ne dafa feeñ bisub gaawu dafa tàmbali bisub gaawu kon ñaar fukkeel ak benn ci weer yi mooy doon laytu xadra amma ita billah di xat laaxal xilal fa fii kasin rumha fa xat tamal maqal amma su fekkee dibéer la teer na comme ren kon jàppal ñaar fukk ak juróom-ñaar kon mooy doon laytu xadra moo dajal ñett sart yi wa hiya fi ma qaalahu ahlul huda tuwaafiqul jumaata witran abadan nee na lii la borom xam-xam te boo ko gisee day day day day dëpp ak ajuma te lu toll lay doon lakasun niyatun saakun rey xako xako njëkkon sakun waay loolu moom si borom xam ne Sëñ Tuubaa wayu ko jëm yàlla waay waaye ne borom beneen borom xam-xam moo moo moo wax lii da ko tënk ci la kasun bu ne la laam gi muy jullu laxd laamu laxd muy dibeer kon kasun lay doon ñaar ko juróom juróom-ñaar ni yatun nun googu mu ji nunuk nunuk isnay ini, su ko doonee kon yatun fuka juróom nyant lay sa hakun sa ge mu jubli sa saa ko sulaasa so dee talaa kon nyar fuka juróom lay ra yes ra yes bu dee raagi ra ra raag larbaa kon yes lay doon fukka juróom ñaar ka jun xagi mu jubli ci hai al al khamis kon nyar fuka ñett lay ju katun tun jubli ci jëm jumuk juma kon nyar fuka juróom nyant sa di sinu sabt ak ah, kon lay doon fukk ak ñaar fukk ak benn mu am nag ñoo xam ne dañoo tënku rek ñoom ci guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar ci koor saa bu ñëwee ñooñu lu wér lañ jàpp ndax suñu waa digle woon na ko waa Gede moom loolu leen digaloon waa Gede moo leen digal ne dinañ ko màggal ñaar fukk ren at mu jot moom bis bu mën a dajal loolu ñu màggal ni ko waa kër waa waa Bustaanul Aarifiin waa kër Sëñ Afi Buso ñu sëñ Fallou leen joxoon ndigal lool ñu di ko màggal ñoom it at mu nekk ci ñaar fukk juróom-ñaar Mm. am nañu am ñoo xam ne dañoo tegtaloo ci ne rek laylatul xadri ñett yoon la ñëw ci al baatu laylatul xadri ñett yi boo wàññee seen rek ñaar fi ñaar fukki aar ak juróom-ñaar lay doon ñoo lañ tegtaloo ba tax ñu tàkk ko ci eh, ñaar fukki juróom-ñaar ngëneelam <coughs> sunu borom asoo jàlla wax na ci eh, ci gépp guddi ci ramadaan na guddi gu ne guddi gu ne ci ramadaan guddi gu ne dana wax ñetti yoon ne hel min saa ilin fa utiya atuuba aley hel min mustaxfirin fa axfira la may yuqrid al ganiya xayra al mudim wala fa xayra zalum nee na mboolem guddi koor guddi gu nekk suñu borom dana wax ñetti yoon lii dana wax ne ana kan mooy laaj ma jox ko ana kan mooy tuub ma bal ko ana kan moy sakku njegal ma jéggal ko ana koy lebal aji waamal jurul jaaxal te tey ku matal le ko dul togn mbokk guddi gone ci bis guddi Ramadan dana wax li ñett yoon ci guddi mom sun borom kon wax na ne bisi bisi koor gi bis bu set bis bu set waxtu ñu dok suma daa sun borom daañu ci gorel million ngi nit ci sawara alfa alfi atikhna kan? alfa alfin moy moy million juni jinni bisu set mana bu wer ko tero ba ba wer jeex bisu set waxtu dog yi dana sun ci gorel million ngi nit ci sawara ñu xani ne yeye nañu sawara su de guddi aljuma nak bu ne su aljuma ak bisu aljuma beccak bi par waxtu lay gore lam lambda lam da lam gore ci bat bis kon waxtu wu nek rek ci baca waktu waxtu waktu waxtu wu nek mu gore ci million nit ci sawar ño xamne ne yeeyu bu nañu yalla su dee nak su demee ba ci mujju gu weer wi bis bi mujju ci kor mu xol lam gorel ba weer wi teru bu toll fi nun mu tanal la toll kon defna lu bare bare bare lay doon bu dee guddi lay xadar nak suma dafa Digel digal jibril mu wacc and ak mbooloo mu bare bare bare ci malaika ngab drapo vert wacc ci suuf drapo bu da koy samp ci digg kaaba gi jibril am juróom juróom ben temer laf yo xam ne len firi lu ci guddi leen xadra juróom ben temer laf yo xamne ne ci guddi leen taxat kep len di firi bu len firi dañu jéggi sa ak sowo ya dañu jéggi penk yees jéggi sowo su ko defee nag bu wàccee ànd ak malaaka yooyu jibril dafay digal malaaka yi mu àndal ñu dugg ci biir nit ñi di leen nuyu eh, di leen waxal ami ci seeni ñaan di saafanteeg ñoom ba keroog fajar di jot su fajar jotee jibril wate yaa masar am laak ar rahil ar rahil fa yaqulun yaa jibril ما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول إن الله نظر إليهم وعفى عنهم وغفر لهم إلا أربعة من جبل صوت أن أي شيء ندل نك بفجر بنا أي شيء ندل ملاك الله كي يو يو سيد جبريل أنا لن لا دفل خير محمد سين لن سنبون دفتش آجوي ويجمي تخيط يندرس عسن تقول دقي moy len yalla yàlla de xool na len bëtub yermande jegal bal len jegal len bam dess ñant ñant kep ñu bokku ci jegal yalla goge fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam haa'ulaa'i al arbaatu mudminu khamrin wa aqu walidayhi wa xaatimu rahimin wa mushahin khila ya rasulullah manil mushahin qal al Musa'rim. sallallahu alaihi wasallam ñant ñoo nga xamne duñ ca bokk sangara du ca bokk ku amul ngërëmul waajuram maanaa koo xam toppul waajuram ba am ngërëmam maanaa ku toppul waajuram rek dog moom wala mu moy ko du ca bokk koy doguk bokk du ca bokk ñaar ñu meroo li fekk jubóowuñ du ca bokk kon ku ku meroog nit farlul fexel balaa guddi lay doxate ñëw nanga fexe ba jubóog moom na nga ne boo jubóo tamoon lay doxate bu ñëwee yéen ñaar moom la la la xéwle la muy bari bari yéen du ngeen ca bokk man naa bàyyi xel sëriñ Tuubaa it <coughs> sëriñ Tuubaa ak laylatul xadar ne xam na dafa bokkoon ci min fursaani layli dafa bokkoon ci gawar yi guddi yi di dundal mboolem guddi yépp guddi yu tedd yépp nga xam ne rawatina bu dee laylatul xadar al musharrafa moom guddeem gu nekk dafa mel laylatul xadar comme ni ñu màggal guddi laylatul xadar moom noonu lay màggal guddeem gu ma ñëw gu ñëw gu nekk day dunda guddi yëpp ne ko Ash-Shinqiti waxe rahimullah ne min ancien ma man allah taala alay bihi innahu abudo fi ardin lam yabuduhu biha gayru malaikati ne Sëñ Tuubaa bokk na ci li ko yàlla jagleel li gën màgg ci li ko yàlla jagleel mooy dafa jaamu yàlla ci suuf soo xam ne kenn mësu faa jaamu gaa ba Sëñ Tuubaa moom dong nga fay jaamu yàlla suuf yàlla lu du malaayka yi te war wormaal guddi gu nekk di ko màggal <coughs> comme ni muy màggal Laylatul Qadr di ko wormaal ni muy wormaal Laylatul Qadr ñëw na ci nafaatu miskiya lil ala muhammad ibnu abdullahi al ubaydurahman al alawi naar boobu nga xam def bind ci jaar jaar Sëriñ Tuubaa indi loolu indi loolu ci téere boobu am na solo naar ba waxoon al cheikh baab mahmoud ad daymani mi tàgg Sëriñ dafa xam هو الشيخ يدعو للنجاة من الردى هو الشيخ يدعو للعبادة والذكر يقوم الليالي ليلة بعد ليلة فكل الليالي عنده ليلة القدر الشيخ باب دفعه لي عندي فاد واخنا سيغ بي ركاي سيغ بي مون لا فينا سيغ بي ركاي سيغ بي ني سيغ بي ركاي سيغ بي داي واتي داي واتي جيمي تي موچو تيال كاندي moom rek sëñ bi ndax day woote jëme ci jaamu yàlla ak tudd ko day taxaw guddi guddi gu nekk gannaaw guddi nga xam ne guddi gu nekk ak guddi ga ci topp du leen teqale ci taxawaay nee na guddeem yépp dafa mel ni laytu xadar doomu a Cheikh Mouhamadul Bachir wax na ne da koy gis moom sëriñ bi <clears throat> su weer koo teer da nga de xawlam day ubbi ko ngay yëg ak sigré ci moom mbégte moom yi bég nga xam ne saa boo xoolee xarkanu ngi belli ngir mbégte ci la itajal na yaa xarit dayfin ata bil bisal mad ahli ko dem ba ci wax ne yaa chahra rabbin karimin fiika jaadalana bi laylatil xadri daatil fadli war raxadi ci sa biir lan suma defal guddi gu tedd gi guddi te xadar Sëñ daa ko sonne lool sonne gu jot da ci di yàlla ak boroomam di ko ci jaamu di ko ci ñaan ñaan yàlla mu def guddem yeb melni laylatul wax ko ci ilhamu latifil khabir ne wa fi barik summa habli umra ka laylatul xadri bi jahil bushra ma ngi la ñaan nga barke yàlla ma ta may ma sama dund lépp melni laylatul ba yàlla nangoo ak ñaanon la wax ne حبي لله وأهل بدر badri sayara umri الخدري bëgg gi ma bëgg yàlla bëgg gi ma ahlu badar dem na bu mujj mujjal sama dund yëpp mel leetu xadar wax ne lam xo ne zajrun wala waidu lii laytul xadri wa yow mi idu nee na aw jajj wala tëkk du ma du ma du ma jublu mukk waaye am naa laytul xadar te sama bis bu nekk mel ne na it dëggal na kon Abu Talib al-Makki yi ca ba ma waxee ca téeram ba xóotul xulub ne yaqul baadul ulama kullu laylatin lil aarifi layta xadar maanaam aarif billahi taala guddeem gu nekk day mel laytu xadar lam cay la am ci guddi lay moom lay am ci ci guddi guddeem gu nekk euh, moo tax nag mu taalifoon miftaaxu nasri boobu nga xam ne da ci indi ñaan yi nga xam ne moom lañ baaxoo ñaan ci li dox dara gannaaw sëñ bi agsi na nag kon xam naa dañu daal di tënk foofu rek euh, euh, <laughs> ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp yi ngi lay taataan ñëpp da àdduna si yëpp daal ñu ngi lay taat ñu ngi taataan lañ lañ daan am di ko tàqamti ko ren ba déwén dañ ko yàkkamti lool jotaat ko Eh, ndax lañ cee mën a jëlee ci njariñ àddina ak àlaxira ci say kàddu lañ koy jëlee moo tax saa bu ko teroo rek nu ma la ko waxee léegi moo di saa su nekk ñi ngi woote di laaj kañ lañuy dem ko sim saa kañ lañuy dem ko sim lépp nag lañ lañ fiy tuufoo rek ci njariñ loo xam ne eh, dañ koy jariñoo eh, ren ba déwén kon loolu ñëpp ñu koy tànn ñu ngi ñaan suñu boom yàggal la fi lool te wéral la ba nga àggale mbooleem say yéene tal lépp nag ànd ak ngërëmal Sëñ Tuubaa te te te loolu yaakaar nañ ko ndax ndax ndax ci ngay xëy ci ngay gont li luy gërëm loolu Sëñ Tuubaa ci ngay ci xëy ci ngay gont yàlla na ngërëm loolu sax wa wa wa wa Mor xam sa jërëjëf euh, mbokk yi nga xam ne ñoo ngi topp ci àdduna bi ci biir réew mi ak bitim réew jërëjëf itam mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ci ndakaaru ak ci Touba di ñuy suivre ci rajo yi euh, ñoo ngi sant bu baax a baax euh, sëriñ Mor xam sa diine ci waxtaan wi am na solo lool waaye ñu dellusiwaat rek ci noonu ñu leen ko waxee woon li ñu leen diggoon ci saa yu koor accès bokk na ci li nga xam ne moom la sun borom sant ab jullit waaye Serigne Touba soññ ci taalibe yi ak murid yi Cheikh Mahamadou Moustapha di ci teg tànkam waxtu wu ne di berndeel jullit yi ci seenu yaram ginnaaw bu dog jotee waaye di leen jiite waxtu wi di leen naafilaal alquran waaye bi noppee nag di duy seeni ruu lo xamanteni bi dana tax ñu gëna mëna yegg de jëm ci seen borom subhanahu wa taala ñu diko jaajeufal bu baax baax ci jotaay bi wessu ca dair al wafa ca darul moxti aduna bepp a ngi woote te diko rafetlu tey tey tey tey dolli ko ci seigne touba ñuy ñaan sun borom yalla nako fi yalla bayyi lu yag lool te lepp and ko wër te bayyi ko am xelam nak ba ci lepp lu mu liggéeyal seigne touba seigne touba gërëm loola ñu fas andat ak mom rek bokki ci tewul wat waxtaan wi e, ci lepp lo xamne rek e, jox nañu ko tey rek ñu ko bind ci dama koy faral di waxe nako bi ngay raxas say ndab di wër mag ñi di ci la nekkon wala di jël la ne ci seeni cin bo booba bari na ñoo xam ne seeni xel nekkutoon ci loolu waaye tey jii boo dajale wutoon nag dana bari lu lu bari lu réer waaye waxtu wu ne day am ku yàlla la tànn ngir mu sowe mbooloo mu bare bari mi nga xam ne alquran bañ demee ba mu nar a réer saxaaba yi daje woon nañ waxtaane nañ dajale lii kat ndax waxi yàlla la te buñ sàgganee du ñu réer loolee dajale woon waxi waxi yàlla jooju nag euh, moo del siwaat ci mujjug jamono dajale nag wax ji nga xam ne mag ñi wax nañ ko ci sëñ Tuubaa te fekke woon ko tam loo xam ne ku ko dégg mën caa jariñoo loolee nag sun boroom def ko ci yow yàlla yi denc bu yàgg lool mm, mag ñi yaa ngi leen di dundalaat ci liñ doon dund ci sëñ Tuubaa léeg-léeg am ku toog ci barab dégg nga ne diw nee na ca kooka di maamam mu xamee ci loo xam ne xamutoon na sax maamam àggoon na foofu ci sëñ Tuubaa wala maamam dencoon na secret bu mel noonu ci sëñ Tuubaa kon yaa ngi dundalaat mag ñi yal na yàlla wéy di la dundal eh, eh, ba faw ci barke Cheikhul kon bokki jullit yi bokki taalib yi ñëpp ñu ngi maase waat di teewlu di taatan eh, sëriñ bi nga xam ne fàggal nga leen ko tey. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbooleem mbokki julit yëpp di nuyu mbooleem mbokki taalibi yëpp di tàmbalee siyaar bi ci alxalifatul am li taifatil muridiya ayyadahu llaahu wa nasarahu mi sëñ Muntaxa yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla ko yàlla jàppale ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi mu bëgg a liggéey te fu mu geesoo gis ñu ñu bokk ci ña ko ci gën a jàppale yàlla na yàlla defal loolu eh, defal ko taalib yi ko bëgg yëpp ndaxte taalib yi fa ko bëgg nag eh, di ñaa di leen nuyu it ci njabootu sëñ Abdul Xaadir di te di leen jox am nuyoo ki ne ki ne ci bopp bi muy sëñ Seexam sëñ Abdul Xaadir Mbàkke maa ngi leen di jot ab nuyoom ak njabootu sëñ Abdul Xaadir gépp nag di nuyu mboolem mbokk yëpp yi ñu bokkal sëñ bi ak mboolem taalibe yi yëpp yi bokkal sëñ bi ñaar ñooñu rek a fi ne mbokk yi ak taalibe waaye ñëpp nag maase nañ ci nag ku ne bëgg a doonub taalibe waaw ah, ndax ci la njariñ li ne yàlla nu ci yàlla ak sëñ Tuubaa jàppale baloo lu nga xam ne li sëñ bi yor loolaay ak njigam yàlla na nu ci yàlla xeer ci ñu wut ko te buñ ko wutee ñu am ko te buñ ko amee gis ci ndimbalam waaw ñu ngi leen di nuyu ci weeru ramadaan wu tedd wii di weer woo xam ne daa doonoon xaritub sëñ bi di soppeb sëñ bi di ganuk sëñ bi te amuñu lu sëriñ bi ndax moo ñu may ay bët te ku la may ay bët da ngay xool fa ko neex kon li jaadu mooy lu sëñ bi bëgg lu ne ñu bëgg ko sëñ bi nag moo fonk lool sahru ramadan di ko dundale noo xam ne ci réew mii noonu mu ko ci doon dundale ak ci yeneen réew yi kenn mu si ci àgg ñu bari ci lañ roye ci ni mu ko doon defe ba eh, jawwi ramadan ji nga xam ne moo daan ak njëriñ te loola mooy wala nga mooy mooy royaat ba tey nekk nekk ci dëkk bi jawwi ramadan jooju sëñ bi moo ko waajal ba nga xam ne dangay ngay yëg ci sagro ne yaa ngi dund sagro mi ngi dund waaw ndax roo daa am lu koy suuxat yaram daa am lu koy suuxat yaram ay ñam moo koy suuxat ruux nag mooy zikrullaahi ak lu demee ne moom mooy suuxat ak ruux kon sëñ bi nag moom yoon wi ñu teg bu weeru ramadaan ñëwee dañoo fat daa xalaat ngirum yonent bi alayhi bam leer nañ mu indi ko te koo jaarewu ci yeneen aada <laughs> ah, loolu loolu daa bokk ci nga li nga xam ne daa fab la la la la yonent bi ak saxaaba doon dunde mu def ko lu mel ni tob bi rek mu ñëw sax ci garab gi te jaarut fenn ba aada yaag yeneen yi ca war a topp te waru ci woon a topp mu génni ko ca dëgg dëggi rek dëgg dëggi lislaam ji rek mu indil ñu ko kon kenn amatuk fayam yàlla na nu yàlla na nu ko yàlla fayal rek lañu mën a wax waaw yàlla na nu ko yàlla fayal ñu daal di tàmbali nag ci waxtaan eh, ci ndax dama ne woon sëñ Mor sama doom ji dama ne kon tey waxtaan yi yaa ma koy defal ndax xaw a nekk ci coono ak yooyu moo tax dama ci sànni ay kàddu yu néew rek ndax li mu wax mu matale biir biir yaramam ju xam ne da ciy mën a toppi ngirum yàlla mu yaa mu mi ngir mi nga xam ne amuti pakk amuti dégg bu ko defee mbakkan bi mën a yëkkati ko ndax ku ne ñi dañ daa naan ku ne li tee sa bakkan bi sa roo gi mën a naaw ak man di xam ci yow yàlla dara maanaa euh, yaram bi ñoom ñaar dañuy xëccoo bu yaram bi gënee diis rek róog gi du mën naaw bu róog gi gënee suur ba gën a gën a ëpp doole it nga xam dañuy mel ne ñaari balaas boobaa sag roo nag day dem ci kaw di mën a jële ci kaw xam-xam di ñëw di ko mën a wax kon loolu nag la la la la lislaam bëggal ñëpp ndax moom la bëggal farda bi moom la bëggal mujtama bi kenn ko kenn ku ne moom la la bëggal moom la bëgg it société bi kon nag lol mo waral andi sun borom ndigali yalla yeb luy defar nit rek motax mu jóg koor mi nak di ci lo xamne day lu re ndax yenente bi bu barax lu massa ñew bu rajab massa ñew ak sahban dara wax allahumma barik lana fi rajbin wa shahban way wa balighna ramadan eh, yalla barke yalal ñu ci rajab ji ak sahban way dimbali ñu bañ mëna fekke ramadan kon kon fekke ramadan ab tereet la boo xam ne ku farlu mën nga ci amee lu kawe sa njort ndax ndax euh, loo def dañ koy ful benn farata boo def sab yéen a daal lañ la koy defal loolu yéen a benn farata boo def juróom-ñaar fukki farata lay tollal benn naafila boo def moo koore moo moo farata mooy yem ci yow ci burut koor kon noonu la yonent bi fonke woon moo tax bu weer bi saa ñëw ndeysaan danaan xilaala rusdin wa xayrin xilaala rusdin wa xayrin amantu bi si xalaxaka ndeysaan loolu lay lii mooy weer wi weeru jub weeru yiw gëm naa ki nga xam ne moo la bind loolu la daay wéeree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonoon na koo xam ne day tabe lool ci waxtu wu ne waaye nag bu koor ñëwee ak tabam day yokk moo ne sëriñ bii de mag ñi ko xamoon ñëpp loolu la ñu nee na eh, tabe woon na ci waxtu wu ne waaye maam amintu bu sa mii di daana nee na si sëñ bi taboon na ci waxtu wu ne waaye nag bu koor jubee ak bu koor agsee ci la tab gi yow ndax loo ko wax ak loo ko ñaan loo mu ne xanaa sama gan gi nga koy bëgg a waajale daal la koy fajal fasaas <laughs> kon noonu noonu la fonke woon nga xam ne it joo mos a am ci moom bu dee ñaanlu bu dee itte eh, eh, loo bëgg mu defal la ko bu sa baat di daanoo rek mu dal la koy defal ñaan gi looy wax rek moo tax moo tax te loolu lépp sëñ bi léppam day daaro yonent bi sallallahu alayhi wa ndax ni abdullahi ibnu abbas nettali ne wa kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam ajwada annaasi walakinahu kaana fi ramadan ajwada minhu fi gayrihi min sooril haami kullihi yonent bi tabawoon na waxtu wu ne waaye nag bu bu ramadan ñëwee mooy raw mu dal waxaat moom ci saxiixay ni ci buxaari ak muslim li na fa moom abdullahi ibn abbas ne kaana rasulullah sallam ajwada annaasi wa kaana ajwada maa yakunu fi ramadana hiina yalqaahu jibril wa kaana yalqaahu fi kulli laylatin min ramadana fa yudaarisuhu alquran nee na yonent bi tabe woon na waxtu wu ne waaye nag weeru koor ñëwee ci lay raw bi ko jibril di ñëw di ko jàngala di ko jàngalanteeg moom alquran yudaarisu mooy jàngalante jibril day wax mu noppee kee ndax wala sul mudaarasa mudaarasati boobu ibnu abbas wax yadullu ala anna ahadahuma kaana yaqra'u li yasmahu al axar suma yaqra'u al mustamihu li yasmaa al qaari'u loolu la loolu lay tekki kii jàngee kii jàng kii jàng yonent bi la ko yàlla doon defal da koy jàngal li joto jot a wàccee alxuraan lépp jibril guddi gu jot noonu la koy fanaanee moom at mi mu war a wàccee nag ñaari yoon la ko yonent bi la ko jibril defal nekk boo moom ñu ngi waaj kii bi taraawih bi ngeen gis boobu yonent bi jot na koo def jiite ko nit ñi ñetti yoon ci ne ko Seydina Aysat nettali waaye bu ñetteel ba nag dafa nit ñi jàkk ji dafa xumb bu njëkk bi moom ñu bari yëguñ koon woon waaye bu ñaareel bu daa tàmbali xumb siiw lool bu ñetteel ba nag kenn xëjut ci jàkk ji bi mu sëlmalee nag ndax yonent bi fukki rakk ak benn la daa def ndax moom dañ koo defal euh, naafila moom budut koor ak budut koor farata ci moom waaye naafile la ci kaneen moom kaneen moom naafile ci yow waaye yonent bi sëñ te tëdd te naafile wut yonent bi nag ah, yoon woowu nag bi nit ñi baree bi mu sëlmali fajar mu daal di jàkkaarlook nit ñi ne damaa ragal day ñu farataal ko ci yéen te du ngeen ko attan moo tax mm, jiite wéyuma toog fii di leen jiite te bu ma ko dee def yàlla amaana mu farataal ko te kon du ngeen ko attan daal leen di bàyyi ñu dal di eh, mën a mën a eh, kii nga xam ne ñetti naafili yooyu daal lañ xam mu daal di def wax loolu muy wax waaye nag bi bi jamonoy Sidna Omar ñoom ñëwee nag lañ ko daal tàmbali nag di def jàkka jox siiwal ko noonu waaw noonu la demee yonent bi nag eh, koor nag day loo xam ne amut ci jaamu yàlla yi genn gu yàlla wax ne ni ma ko farataale woon ci njëkk ña defe farataale naa ko ci yéen yaa lazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba alal lazina min qablikum wax ko ci geneen jaamu yàlla laal laallakum tattaxoona te yéen yëpp saxat bi ma koy sant muy yéen ak diine yu njëkk yëpp ngir bëgg ngeen ragal yàlla rek kon koor marchandise miñ ci war di wut mooy ragal yàlla loo mboolem loo ci loo ciy wut rek loolu mooy mooy li nga xam ne boo ko ci amee tanawu nga boo ko ci amut day mel ne sam njaay amut tono yenoon ci yàlla musal yàlla dafa fonkoor ba même mala yi ci géej gi sax am na lu ñuy wax dubbul xut bi tamit dëkk ci pôle pôle noor ba dana yor juróom-benn weer mala yi ne ci géej gi li am na lu tudd dubbul xut bi loo xam ne si tatu astur dana ko wor kon yàlla mel na ni mala yi sax da leen di worloo hmm. nga xam ne kon woor moom yàlla da ko fonk ci lépp ci foofu ci ci xeet yëpp ak ci mala yeeg yëpp ku ne am na nu la yàlla di worloo bu ko defee nag ñeent yii yëpp mën nga koo jëlee ci koor tawaado toroxlu amaanatu kóolutéef alxilmu layat tilaawatul quran jàng alquran alxiyaamu naafila ñeent yëpp mën nga ko bu koor jotee mën nga ko cee watte ak garab la goo xam ne mën nga cee watte tawaado ndax dangay dangay gis ñam yéeg yëpp mu ne ci nga toroxlu ngir yàlla doo ko mos amaana da ngay ci sëb néeg yow don ndox ak lépp ne fa te kenn gisu la nga nga bàyyi xel yàlla te muraaxabatullaahi moo gën a for lépp leet yonent bi sax bañ ne ko sëñ bi sax wax na ko ci xasida gi eh, xasida xasida gi muy jàjje nit ñi fa saa saa'imin mahal jamaa la lahu fiihi siwal majaa am na ñu ku ñoo xam ne dañuy woorandoog nit ñi waaye duñ ci jëlee lu tub ab xiif mooy koo xam ne yaa ngi yaa ngi woor te léwétoo yaa ngi xuloo yaa ngi xëccoo yaa ngi soowoo <laughs> falaa yar fas la la ti bi wax boobu moos xasee nekk ci yow fu sooxoog rafasoog lépp waroo ko def ku wax ak yow nekk inni saa yi mun loolu la yeneen bi jàngale ku la wax rek man damaa woor man damaa woor nii man weer la wax ne ci ngay tàggatu jàng alxuraan ak setantal ko ci ngay tàggatoo ci la ndax naafila nii ñu koy defee ci koor ñun ñëpp dañ cee waroon dëkk <laughs> ndax ndax yàlla tagg na lool wala si ni yabitoon li rabbihim sujjadan wa xiyaaman ta tagg na lool ci sajdat yi tatajaafa junubuhum anil madaajihi yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaa wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun kon dañ cee waroon dëkk kon waaye nag ko des na ko tàggatoo ci koor ba bu wéyee nga man cee tàmbali di ko saxal moo tax nag sëñ bi na wax ne koor dëgg faru ba saa imin mahal jamaaha laysa lahu fii si wal majaaha koor dëgg kat bu nee na bari nañuy woorandoo nit ñi mar di tali waaye duñ ci am lu tub xiif yàlla na ci yàlla musal mu daal cee teg ne fa sawmu an yasuma kullu odwi han kulli ma yufdi fatan lisan koor dëgg mooy nga fexe ba sa cër yii lenn luy indi am njamuj doo ko ci def du bët yi du nopp yi du lépp doo ci xool loo doo xool wërta xool doo ci wax loo wërta wax doo ci diglu loo wërta dégg am sik ani nazari lil xaraami wal mashi wa samhi mahal kalaami sëñ bi nee na sa bët yi na nga jàpp walis xool ci lu araam na nga jàpp sa bët sa xool bi walis xool ci lu araam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 mom mom la def muy ngeen ji ngaram diko dalal te te te wut fenn dalal gi ak yaatal gi mu dal koy ñaanal mom wer wi ne la silta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi xira taati was sadadi yalla bo dañ di gan gu tedd bo xam dañ ñuy siyaare si ñu di la terele nak mber ndep top yalla ak njub muhasaman hinda rabbin la sharika lahu wa hinda ahli tuqaa wal ilmi war rashadi yàlla boo dañ di ku ku màgg fa yàlla màgg gi nga doon am fi yàlla waxtu ne nay dolli ko màgg gi nga am ci niti yàlla it wax waxtu ne nay dolli ko kon nag sëñ bi fag moom gis nga lim gis nga lim ñaanal koor te mi ngi am te noonu mu ko ñaanee rek ni la ni la ni la ko yàlla nangoo waaw ndax ma samaa ci sëñ blaat mu ne mu ne sëñ Tuubaa lépp loo gis mu bind ko ci xasaayit gi boo jotee woon lawhul mahfuz da danga fekk ñu bind ko ci noonu lépp loo xam ne nee nañ la sëñ bee ko wax te ki ko wax di ko wér boo guddee fan da ci teg sa bët te da te dane ma mooy ba ma koy neet dane ma kilifa gu mag gu yàgg sëñ bee moo waxoon loolu <laughs> kon nag waaw waaw luñ ne la sëñ bee ko wax te ku wér wax ko boo guddee fan da ci teg sa bët lépp luñ ne la sëñ bee ko bind boo guddee fan eh, boo jotee woon lawhul mahfuz da danga fekk ñu bind ko ci noonu ndax aktubu naaxilan min allawhi wa min qalamihi wa fi hurufi lam amin <laughs> waxal na ko boppam sax <laughs> kon nag moom li sëñ bi ñaanal koor mooy la silta maahiya aw zaarin wa qaadiya aw taarin wa taarida axyaarin min alxaladi yàlla boo dañ di fare ay bàkkaar suñ bakkaar yépp koor mën na ko far di ñu fajal suñuy aajo di ñu dàkkul ku taaree di ax yaay di ñu dàkkul yeneen yi yeneen yu gënul yépp <laughs> wa saafidan kulla shaytaanin bi ma maahu yàlla nga suñ bi nee na ko yàlla koor saa boo ñëwee yàlla nga njoñ waaye wa mutifan tey aji may nag li sawil insaani ñeel borom rafetal ya bis safadi ci samay bopp wa mudhiban kulla ahsanin nadiixu biha fi dahri af idatan yaa mudhiban nakadi njàqaree xol yi ñu am yépp nanga koy demal yow koor yow mi nga xam ne yaay demal tiis yi kon koor noonu la ko sëriñ bi fonke koor sëñ bi da koo fonkoon ba ni mu ko doon dundale mboolem mag ñépp mujj nañ bu njeereem euh, koor gi buñ jubee kumte gi kilifa yëpp dañu um si ñenn ñi dañ leen fi téye bañ wori ñenn ñi ñenn ñe ñenn ñi bala ñoo wari xa koor gi koor gi dana xaaj mboolem kilifa diine yi nga xam ci réew mi yëpp ñu ñu ñu ñu sëriñ bi mujj na bu koor kumte gi jegee rek ñëpp ay ñëw nga xam ne njeereem guddi gi ni ko sëñ bi daa waxee doo xàmmee guddi gi ak bëccëg bi suñu sayri mi dégg naa ko ci moom tey mu nga xam ne guddi gi doo xàmmee guddi gi ak bëccëg bi ñëpp dañuy dukk dukki rek <laughs> ku kat dana la jox sa maslaa ñii ma ngi leen di yónnee ndab ñii ni ma ngi leen di yónnee eh, eh, ay teraanga bu dee naar yi ma ngi leen di yónnee attaaya yi ñu war a am te du ci fàtte eh, nga xam ne ku ne lay sa àq jox na ko te loolu du tee bu jàkka ja ñëwee yëpp moo koy taxawul boppam moo ko jiiteel boppam mu amut amut naayib ci jàkka ji yëpp moo koy jiite waaw loolu nag kon loolu noonu la doon dundale koor ah bég ak bégale rek mas naa ko laaj sëñ bi Mbàkke ne ko sëñ bi ñe koor mu ne ma koor de ñaar rek bég ak bégale da ci daa def <laughs> ah, bég ak bégale <laughs> kon nag moom li li li li li ñu ñor ci koor gi moy mom xam nga lim bax lim doon wut ci yalla da ko da cee ba am ko rabi rabixtu fii tijaarati ya yafuuq rabbi khalifati wa jari wa rafiq tonowu wuna ci yahantu gi ma doon yahantu ci yalla tone go xane kawé na ñortu yalla nak moy sama kootat moy sama dëkkandoo moy sama andando lo tax daram du ko du kuruj Eh, daraam du kuruj eh, ndax ndax moom ba muy dénkaane sëñ Abdou Khadre mos na ko ba muy ba muy dénkaane njabootam ak lépp nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani laka wa diatun abad ku fi dul jóg la dénk lépp nafsi sama jëmm wa diini ak sama diine suma ahli ak sama waa kër wala walat ak samay njaboot samay doom wa maskan yi ak sama dëkku bopp bii yooyu yëpp de wadiyatun yow yàlla yàllaa ko dénk kurut gëmm laa taax soo senatun wala na mun seen ruxaat nee na moom la yàlla dé moom la sëñ bi dénk moom moom la dénk moom dénk <laughs> waaw du gëmm du jayeexu <laughs> waaw kon war na suñu suñu xel war naa dal boo ko defee nag ñu xalaat xam ne moom lu mat a fàggu rek fàgg na ko lii xaada maa lixtaara wax di wax da ndeysaan loolu waaye moo fonk neen sëñ moom lim lim lim wut yàlla lépp wax di wax da man dong yow dong <laughs> kenn kenn kenn lépp koy moom moom la ko defe <laughs> loo tax ma indi waaye dama ko daal di gis suñu sëriñ li maa lixtaara wax di wax da man dong yow dong <laughs> matal nga ma lima tan non lip bu ba andil mu Loa loo mboolem lu lu sëñ bi ni nga xam way wu bu noppee da nga naan xamul lu muy ñaan lu muy ñaanaat te bu mu andiwaat te nee na lu mu doon tànn lépp yàlla andil nag kon war nañoo suñu xel war naa dal suñu suñu suñu xol it war naa sedd ndax moom ba ko ba rek ba nga xamee ne si bañ ko tànnloo daa tànn ca la yonent bi tànnoon booba rek lañ am tawféex waaw loolu ndax ndax keneen kuñ ko waxoon ba ca ca ca lañ tànnagul ngay tànn lañ tànnoon ba noppi ca ngay tànnaat waaw waaye moom bëggatu wuteeg yonent bi dara ca la la yonent bi tànn rek la tànnaat <laughs> yaa gën <laughs> moo tax mu gam gën moo tax mag ñi naan sëñ bi uh, fekkoon fekkoon na fi baax waaye gën la fi indi <laughs> mag ñu mag ñi daal di ko wax euh, kon nag euh, guddi ramadan gii ñu ngi ñaan sëriñ tubaa defoon ñu ci ndimbalam ba nim ko bëggee suñ kàttan aggu ci waaye nag moom juwoon ak yàlla te ku mën a gàttandu la te waxoon na ne ku waaxu jëm ci man ma gàttandu la mu na ci tombam yi waaw ko dox jëm ci man laa wax sax dani ko dox jëm ci man rek ma gàttandu la waaw waaw kon nag yàlla na yàlla na yàlla na nu gàttandul boppam yàlla na nu dimbaleel boppam yàlla na nu defal tawféex lislaam jii nga xam ni moom la bëgg ñu gën cee góor góorlu gën cee farlu wan doon ci ay ay ay ay ay misaal yàlla na nu ci yàlla dimbale ba nim ko bëggee moom sëñ bi ñu mel ni ba nga xam ne ni mu bëgg ab taalibe mel ni danañ ni mel danañ bokk ci li sëñ sëñ ma Lamin Jóob waxoon sëñ Abdu dee leen dëggal seen baaxuk sëriñ murid la ko sëñ sëñ Mat Lamin Jóob nee na sëñ Abdu Xaadir moo ko nett leen dee leen bëgg dëggal seen baaxuk sëriñ ci seeni jëf te bañ koo dëggal ci seeni làmmiñ kese dëggal ko ci seeni jëf mooy ngeen yarum melawa tënku ciy ndigalam ba ku leen gis ne kii kuy sëriñam waaw boo ko defee nag loolu boo ko defee yaa ngay dimbale keneen ka yàlla na nu ci yàlla dimbale ndax moom yomb naa wane lool lim ñu indi lal lu ci waaye wane eh, am na boo xam ne eh, sëñ bi dafa daa bi muy door jóge ci géej gi daa dem fenn ñi ñi yéene mooy bi ma ndax bi muy door a ñibbisi daanaka boo ayewuñ bu dox di ñëw wut si Darou Salaam boo kenn ayu ko dara ba mu fi am am fu mu dem nag am am ko yéene ñëw leen jébbulu ñëw leen jébbulu s sëñ ko ah neel kooku na bàyyi li ñu wax ki may ki may wootal moo gën a jot baat kooku <laughs> ki may wooteel gën a jot baat kooku de <laughs> kon moom kon moom moom eh, noonu noonu mu ko waxee rek ku ku ñëw ku ne sa ngóor la waaw ndimbalam rek moo la andi loola mu waxoon sëñ Ibra Kebe rek ku fi ñëw des laa woo ku jege-jege buñ la wut doo ñëw lu waaye sori sori buñ la buñ lu sori sori bu ñu waaye da nga ñëw loolu la waxoon sëñ Ibra Kebe kon nag yàlla nañu yàlla dimbale euh, maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan guddi gi ngeen yàgg ko fee def si te sëñ Tuubaa ñu suñu taalibe te ni bëgg ci lislaam ji ñu bëgg ñu ñu ñu ñu ñu ñu rafetale ko ni yàlla na ci yàlla xiir ba bañ defee ko noonu mu bëggee waaw maa ngi ñaanaale it mboolem ñi si bitim réew ñëpp ndax ginnaaw at mu jot ñooy bis bi da leen waxta waxtaan da leen a ñor seen pësteef it joti na ci ñoom ñëpp dañuy yéene fekk mu fekkoon leen Touba waaye pësteef bi nga xam ne moom ngeen am ci sëñ bi dana tax. baati na mën leen a dimbale ba mel ne yéen a ngi Tuubaa waaw ndax euh, ku ne xam na ne sëñ Abdou Khadir nee na sama turandoo ko waxoon ne ko euh, wo nee na dama ko fekk njaareem ne ko damaa bëgg a woori Tuubaa de mu ne ma ah waaw waaw góor waay na ko def de ndax sa naa ci làmmiñam mu ne def lu baax de sakkan na fu ne ba def lu baax de baax na fu ne waaye sakkanee na Tuubaa sëñ Abdou nee na man lu sakkan rek wut <laughs> moo tax wooru ngàtt nga sax bu ko ma saa fekk bax daat day ñëw ñëw tuwa waaw nee nee nee na looloo tax waaw kon nag maa ngi fasaale taalibi yooyu nga xam ne yëpp seen xol a ngi teew ci Touba fu ñu mën a ne yàlla na leen sëñ Touba boole ci ñi mel ne ñoo ñoo ci dëkk bi waaw mën na ko jotti na ci te eh, loolu ko sëñ bay jaxate wax lijjanti rek la man waaw sëñ bi lijjanti rek la man <laughs> lijjanti lu lëj moom dong moom moom la dàq lépp ñëpp <laughs> loolu daal moom daa mel yu mooy li nga xam ne moom moom yëngu ci kenn waaw <laughs> euh, te te te ni ko mënee ci zaahir ni la ko ne ci baatin waaw euh, ni mu ko mënee ci kaw suuf nii la ko ne ci biir suuf waaw kon nag yàlla na yàlla def ñu doon ay taalibeem yum nangul ak yum nangul seenu taalibe bu ko defee wépp yiw si am satu jaxat sëñ bi da ko mos a woo ko am satu loo bëgg ñu defal la ko loolu lay tëjee nag moo na fi moo laajaat nag <laughs> am satu loo bëgg ñu defal la ko nee na am si am satu nee na ma ne ko loolu suñu bu laa ko déggee am na ko ma doon laaj yi nga dégg suñu sony bu waaw loolu moom suñu sony bu moom ko nettali nee na sëñ bi am sëñ am satu loo bëgg mu ne ko loo bëgg ñu defal la ko mu ne ko xanaa nga boole ma ci sa ñooñ sëñ sëñ bi ne ko ah Amsatu kiimaan la loolu eh, wax naa ko ñu bari ñu may waxe larax larax maanaam wetu wetu àddina gi ñu koy <laughs> mu ne ko ah sëñ Amsatu xam ne koo boole ci lu mat a ñoddi da nga ko ñoddil lu mat a jañ da ko ko jañal mu ne ko wax nga dëgg de wasalaamaaleykum <laughs> wa rahmatulahi taala yàlla na suñ boole wa rahmatullahi wa barakatuhu yaakaar naa mbokk yi jar na jóge fii dem ba gànnaar eh, lii rek lañ doon xaar eh, sun borom dimbalewaat nañu ba mu defaat ko yàlla na ko fi sun borom bàyyi ba mu def ko ay at yu baree baree baree bari te ñu ànd koog moom te am ci ngërëmul sëriñ bi muy kàddu yu am solo yoo xam ne boo ko déggee dana daal di tàbbi ci sa biirub xol waaye dana doon it kàddu yoo xamante ne daf lay soññi ci sa digganteeg sëriñ tubaa ñuy ñaan nag ñaan gi nga xam ne moom nga ñaan. te mooy yàlla nañ mel ni neex sëriñ Touba ñaan googu yàlla na ko sëriñ Touba nangu waaye bu ko nangoo ba noppi nag yàlla yàlla rus ci sa jëmm ji bàyyi li ñu la ci kaw suuf lu yàgg lool te lépp ànd ko wér ànd ak it ak ngërëmul sëriñ Touba ndax bokk na ci li ñuy dawe doomu aadama mm. mooy am na mag mu baax ma waxoon ne ma nit moom njariñ lañ koy doyee mm-hmm. muy njariñul zahir ak lool baatin mm-hmm. suñ borom nag def na ngay borom njariñ ni sëñ Touba waxee ne saa nafin bi laa dara rin mm-hmm. njariñ loo àndut ak waaye kenn musta gis ci àdduna luñ ne lii loraange ji ci sëñ Moustapha la bàyyi ko waaye waxtu wu ne nag bët yaa ngi tege ci lu ne njariñ lii ci sëñ Moustapha la bàyyi ko kon nag yàlla yàlla may fan wu lool waa ànd ak wér-gu-yaram ni ko taalibi yéene ci seen xol yàlla na ko yàlla defe ci sa jëmm ñuy sant ñëpp di leen gërëm di sant itam bokk yi nga xam ne ñoom lañ seqal jataay bi tàmbalee ko ci waa rajo Lamfal ñu ngi koy def en direct ci Dakar ak Touba ak rajo ICAP FM bu Serigne Mamor Mourtada Serigne Cheikh Amara ngi toog waaye sit internet yi nga xam ne waxtu ne ñoo koy ànd ak ñoom lu mel ne Touba Vision ak euh, Assalaamy TV ak sunu info ñoom ñëpp ñu ngi koy def direct adduna bépp di ko seetaan ñu ngi leen di sant leen gërëm di ñaan yàlla nañu ko teewe waat déwén eh, te déwén euh, alhamdulilahi rabil alamina wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon xam naa bokk yi ñoon ngeen topp ñaan gi ginnaaw naafile gi waaye da di àndandoo waat nag tàllal loxo su ko defee ñaan gi ñun ñëpp ñu bokk ci ñu ci biir réew mi ak bitim réew eh, alhamdulilahi rabil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in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 ربنا إنك رؤوف رحيم أسبل ستوري أصلح أموري كثر خيوري بلا كدائي يا من أجاب من استجاب حبلي إجابة في سن الدائي نجي هيال المصطفى بعد الصلاح مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسر فكل ما يسرته تيسر ناجاك حبدك خديم حبدك مرتجيا نيل المنى من عندك والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم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 وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربي كان لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربي سدني علما ربي سدني علما ربي سدني علما ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربي فلا تجعلني في قوم الظالمين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن صارت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي حبي حكم والحقني بالصالحين وتلي لسان صدق في الآخرين وتلي من ورثة جنة العين ربي أوسعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي نجني من القوم الظالمين ربي نجني من القوم الظالمين ربي نجني من القوم الظالمين ربي اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا وتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز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 ربنا عليك توكلنا واليك أنمنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء ولتكفني شرف من وعيني وكل من قصدني بالحين ولتكفني شرف من وعيني وكل من قصدني بالحين أسألك الحسمة كل أعصر من شر عين وكلام البشر لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء وكن مهيضا لنا من شر سي حسد محسر فم وسر العين يا الله وسر سحر وسر الخلق إنسهم ومهجنهم وذوات السم يا الله إني جعلتك في الدار دارني يا ثقتي حسنا حسينا وكن ملجا الى الله وكلنا قل لنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما احببت ولتكفنا عن فعل ما ابغضت ولا تكن مبتليا منا اهد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح رد مكائد الهداء الى الهداء باخل لي أن تحم خبل حدا رد مكايد الهداء إلى الهداء يا من حباني بمخجل الهداء رد الذي أما جهاتي في الأصل من المكاره لخلي من عصر ودمرا كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله فتحت لي كل باب كنت فاتحه لأوليائك يا فتاه يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله لنا حمرا سهل لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صاحب وذي حرم ويسرا كل ست عصير يا الله نجئ هيال المصطفى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلع يسير له به الذي تعسر فكل ما يسرته يسرا ناجاك عبدك قديم عبدك مرتجيا نيل المنى من هندك كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به سمت من عتاب وجالبات سقم هو خليل وحبيب لي مهنيا لي عن طبيب به يهبني لبيب يبلغ خير اللقب هو الشفاء من كل داء لمن عليه اهتمدا ومن اباه طردا ذا حسرة وندب ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى توبى التي بك تبنى فيك بنيا ضيخي أسيل حاجنا بالبشر محمد الدين حتى أقيم لدين الله أركانا فتح وهاب يا رصاف يا ملكي ليفتح وهاب لي وارسقني بكل لا اللهم يا قوة الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وحبل حبلك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمال بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وهن حصولها وبعد حصولها أبدا آمين والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي يعني على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم آمين يا رب ياكم كتابي يا رب ياكم باكتاب بس